ñu ñëw si suñu plateau fii ci studio El Hadji Omar Foutiyou Tall comme niñ ko bëree di def euh, ay bés yu ne fii ci Safina euh, dans ci biir studio El Hadj Omar Foutiyou Tall ci seen émission taxawu askan wi taxawu askan wi nag comme ni ngeen ko xamee mbokk yi di déglu Safina ci 98 point 2 dafa jóg ngir taxawu askan wi ci seen i njàmbat ci seen ci lépp loo xamante ne euh, askan wi soxlaw na ko wala euh, askan wi aajo woon na ko tey nag ma fegoon nag ak si plateau bi ak Hadj Mansour comme ni ñu koy defee ay bés bu ne ñu am nag numéro spécial mbokk auditeurs yi tey nag euh, suñuy gan moom macha allah euh, balaa ñu leen di présenté euh, Hadj Mansour ma bàyyi la nga nuyu mbokk auditeurs yi ba pare ñu def la point ba pare ñu door a génne suñu invité surprise yi. ñu santaat yàlla bu baax a baax julliwaat ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam dellu si nuyu mboolem ñi nga xam ne rek saa su nekk ñu ngi ànd ak ñun ci 98 point 2 fii ci seen rajo Safina FM di rajo askan wi ci seen émission taxawu askan wi wax nañ leen ni taxawu askan wi saa su nekk.

waaw Hadj Mansour comme ni ñu ko waxee comme koy defee saa su ne point du jour bi ministère de la santé di joxe chaque suba euh, ñu jàpp ni tey def nañu 702 tests la ñu réalisé ci 702 tests yooyu nak 52 ñoo ci positif euh, bu ñu ko faram-fàccee nag 52 cas la am contact suivi ñu am ñeenti cas yoo xamante ni communautaire la euh, ci loolu tamit ci wàllu faj bi ba 55 patients ñu nga xamante ni dañ leen hospitalisé woon mm. ñu jàpp ni mën nañu wax ni wér nañu ci loolu nag ñu am juróomi. juróomi cas yoo xamante ne dañoo nekk ay cas yu grave ñu nekk ci centre de réanimation yi euh, fi ñu toll nii nag xaaj Mansour mën nañu wax ni 1329 cas ñoo nekk euh, ci euh, traitement sous traitement actuellement ñu jàpp ni 470 euh, cas dans le cadre général ñoo nekk ñoo xamante ne wér nañu ñu am ci nag ndeysaan fukk ak benn nit yoo xamante ne yàlla def nañu ñu dëddu ñu wuyu ci seen borom yàlla na yàlla yërëm leen xaar leen àjjana mm. ñu am ci nag benn cas boo xamante ne évacué nañ ko ci loolu nag ñu jàpp 847 cas ñoo nekk sous traitement jamono ji ñuy wax ci virus situation Omar Foutiyou Tall boo ko doon tënk looy wax jërëjëf Seydou ñu ma kon soo xoolee li ñu li ñu def ci ay test def na juróom-ñaar téeméer eh, ak ñaar mhm. ci ay test yoo xam ne def nañ ko tey li ci ñëw positif cinquante cas muy juróom fukk ak ñeent mhm. juróom fukk ak ñeent moo ñëw ñu gis ni ñii kat am nañ jàngoro bi mhm. waaye ci ci loolu am nañ ci juróom fukk ak juróom ñoo xam ni wér nañu sant yàlla ñaan yàlla mu dolli ko kon suñu suñu xoolee boobook léegi li nga xam ne wéragul na fi dem na si ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ñoo xam ne wér nañ fi amaat nañ kenn démb ci guddi ku ci ñàkkaat ba kanam ñu ñaan yàlla yàlla yërëm ko xaare ko àjjana te te mu yem fa ñu ñaan yàlla mu mu yem fa soo xoolee situation bi da ngay gis ni kaay bi ñu ko waxee ak léegi mi ngi yokk dafa mel ni léegi raamatul dafa dafa mel ni mi ngi dëgg tànk yu xaw a dëgër ça va du simple au doux bëgg a toog te te loolu lañ doon bañ mhm. ministre bi wax na ko bi passé ñoom ñi ngi avancé ñoom it seen jumtukaay mhm. ndax waxoon nañ ci émission bi passé li ñu doon tiit mooy daf ñoo waxoon ni juróomi téeméeri lal rek lañ am mhm. too gisee ak yeneen centre yi ñu ubbi jàpp na ni hôpital yi rek doyatul pour ñu mën a recevoir ñi ñam ci malade léegi camp yi ba ci hangar bi nekkoon aéroport jël nañ ko pour euh, rek préparer li nga xam ne mi ngi ñëw kon ñoom xam nañ ni affaire mi ngi yokk mhm. kon nag euh, li ñu waxoon rek gën a fagaru mhm. euh, waaye gën a làbbali gën a làbbali ñaan yi mhm. parce que la ma waxoon rek moom moo ci nekk man li ma gëm ba fi may wax ak yow nii mooy ñaan rek moo ko fiy jeexal macha allah ci ñëwaat ñaan rek moo ko fi jeexal Haj Mansour kontaan nañu vraiment ci intervention bi mbokk auditeurs yi déglu Safina FM ci 98 point 2 si suñu studio El Hadj Omar tey nag macha ñu am ay gan yu tedd ñu bàyyi leen kenn suñu kenn ku nekk si ñoom nuyu mbokk yi ñu door a dugg ci xuus ci biir waxtaan bi Imaam Mbaye bismillah. alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaa'i ajmain soxna ñi ma ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel tabaarakallaahu ak Mahamadul Mansour ak sunu kilifa yi ñu toogal nii eh, alhamdulilah bilaal di rafetlu nag eh, jataay bi macha allah ndax eh, dara gënul wóor gënul dal xel dégg nga émission bu mel nii tudd taxawu askan bi mm-hmm. daanaka benn émission féetuwu ko kaw soxna mm-hmm. ñi mm-hmm. ma allah jërëjëf Mbaye yaay maam Moussa Guèye Adja Ñima Ba gannaaw ba ñu bokkee sant yàlla teg ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nuyu mbooleem ñi ñuy déglu ñëpp ci Safina FM ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wane sunu mbégte ci jotaay bi ñu amal tey tudde ko taxawu askan wi mm-hmm. incha allahu taala ñu fas ci yéene ànd ak sunu kilifa gu tedd gi di imam xaaji Thierno Hamid Yoroban mm-hmm. ak sunu imam bu baax bi di imam xaaji Abdallah Mbaye fa tabarakallahu ahsanu xaaliqina mm-hmm. kon ñu ngi leen di jox sunu kàddu incha allah macha allah yaa imaam uh, imaam Moussa allah uh, ñu jox kàddu gi Thierno Hamidou Bane. Uh, wa rahmatullahi toog ci palato bi mm-hmm. di cheikh alxaaji abdullahi mbaay mm-hmm. cheikh alxaaji imam moussa gueye ak cheikh alxaaji mouhamadul mansour fall mm-hmm. ak yow madame la directrice ñu ma baa gànge di nuyuwaale mbooleem auditeur ñi nga xam ne ñoo ngi déglu seeni rajo safina fm rajo bi nga xam ne ne imaam Cheikh Mouhamadul Mansour wax na léegi rajo askan wi rajo askan yi nga xam ne moo xalaat def émission taxawu askan wi kon nag dafa ah, wuy dafa ah, tur dafa wuyu borom macha kon nag ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci xalaat bu rafet bi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jëmale kanam te mboolam kaddu bu ci génn rek yàlla na doon kaddu buy jëriñ ba jëriñ askan wi yëpp ba jàmm gën law ci biir Sénégal ak biti Sénégal incha allah jërëjëf euh, imam Thierno Hamidou Bane euh, mbokk auditeurs yi déglu Safina ci 98 point 2 Haj Mansour euh, def nañ fi émission ñu dalal fi ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam yi ñu def émission dara ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoo yor daara yi tey nag ñu def émission dalal ñi nga xamante ne ñoom la ñuy woowee ay ustaas ñoom itamit euh, ñu waxtaan ak ñoom ñu wax ñu seen point de vue ci li nga xamante ne moom moo lëmbee àdduna bi di coronavirus bi Haj Mansour ñu dalal leen ñoom dañuy mën a taxaw ñetti ñetti ñetti point yëpp dañ ciy mën a taxaw kon tey suñu émission dañ koy généraliser ci ñoom ndax jàngalekat lañu ay imam lañu ay ay ay sëriñu daara lañu mhm. kon yaakaar naa euh, taxawu askan wi la wax mhm. fii ñu toll si jamono su ma doon su ma question bi may njëkk nga xam dama koy dama leen koy posé mu bàyyi ko mu wër. Mhm. mooy suñu bëggoon a taxawu askan wi ci diine. Mhm. tey su diine bëggoon a indi solution. Mhm. ci askan wi fan lay jaar imam. jërëjëf Hadj Mansour diine de bu bëggee buñ ko bëggee. laaj fu muy jaar ba taxaw askan wi wane na yoon yi ba noppi yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ma waxoon ba muy dem bàyyil naa leen fi ñaar yoo xam ni feek yéen a ngi ci jafandu du ngeen gëlëm du ngeen jaaxle te du ngeen réer mooy téere yàlla bii nga xam ni bàyyiwul dara ah. lépp ngi ci ak sama sunna su leer si nañ fa tabaarakallah sunu xaaliqiin lépp lu ñu soxla ci taxawook lu ñuy musal ak luy jëm kanam yépp yàlla jël na ko def ko ci diine yonent bi wax na ko yonent bi yonent bi wax na ko ba fi mhm. lépp ngi ci diine nag insha allahu taala macha allah nawal imaam alhamdulilah alamin eh, émission bu am solo la muy taxawu askan bi waaye nga indi ci nag point bu am solo mhm. muy askan bi fan la ñu mën a jaar dégg nga ba taxawu leen imam Moussa def na ci junj bu am solo muy alquranul karim sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee nag bi ci des askan wi pour taxawu leen pour taxawu leen il faut ñu jege leen wax ak ñoom il faut ñu jege leen bu baax wax ak ñoom ndax mag ñi dañuy wax ne booy sàmm. Mhm. ak jur benn yat rek ngay yor. Mhm. benn yat rek ngay yor booy sàmm ay nit nag nit ku nekk ak yatam parce que jikko yi ñoo wóote mhm. léegi nag euh, pour taxawu askan bi pour fan lañuy jaar ba ñu jëriñoo liñ leen di taxawoo il faut ñu xoolaat jikko yi il faut ñu xoolaat jikko yi jege jàngalekat yi jàngalekat yi jege askan wi ñu jege sécurité bi ñoom ñu jege askan wi ñu jege borom kër yi borom kër yi it jege njaboot gi su ko defee fa tabarakallahu imam yi itam ci seen xutba ci seen waxtaan seeni bayaan ak yépp ñoom it ñu gën a askan wi su ko defee nag te kenn ku ne nag la nga leen di jegee nag nga bañ ko yërëm bañ ko wutal tur bañ ko wutal sant bañ ko wutal gox waaw kay su ko defee loolu daal laa ci jotoon nam jërëjëf mbay Thierno Hamidou boo doon ci laaj boobu السلام عليكم حجا نيوما شيخ محمد المنصور كوم شيخ الحاج امام موسى وخي اك شيخ الحاج عبد الله مباي وخي لول مو في ام ندخ ديني نيتي بونكو لا ام نيتي بونكو بي نياري سا ديغانتي اك سا بوروم benn bi sa diggante ak say morom mooy pas-pas sa diggante ak sa borom jaamu yàlla sa diggante ak sa borom wante nekk nekkin bu rafet sa diggante ak say morom loolu nag comportement la suñu buggee diine ñu gis ci seen bopp ci mbir mi walla ci askan wi faw ñu am jikko ju rafet ndax yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moom nee na innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaqi dañu ma yónni pour defar seen jikko lu waay am te jikko ji rafetul baaxul su booba dafa mel nu dangaa góob say dugub dugal ko ci saak wante saak bi dafa bonn balaa nga àgg kër gi soo moytulee <laughs> tuuti mooy àgg <laughs> wala dara du àgg <laughs> kon nag jikko yi d'abord jikko yi nag ñaari nit ñoo koy war a taxawee ñu am nag ñu leen di gunge ndax yonent bi salaa sallam mu baax ne sinfaani min ummati ida saluxu saluxa annaasu wa ida fasadu fasada annaasu ñu ne ñooy ñan ñu ne alfuqahaau wal umaraw mu ne ñaari kuréel ñu ngi nii ci sama xeet wii suñu baaxee ñëpp baax wante am na nu muy demee lépp mën na indi jiixi jaax ñu ne ñoo ñoo ñen mu ne boroom xam-xam yi mooy kilifa diine yi ak waa aada yi mooy kilifa aada yi ñoom nag ñu ngi ci kaw wante ñi nekk ci suuf ñoom ñoo leen di gunge su fekkente ne premier kilifa aada mooy président de la république mhm. ñi koy gunge mooy ay ministre am mhm. ministre am ñu am am na ñu ngi leen di gunge mhm. mooy directeur yi ak de service yi ñooñu suñu taxawalee li nga xam ne moom la ñu wax ci constitution mooy shariatu ad dusturu al wal qanun al ijtimaai al watani constitution chaque jour président de la république la constitution du kanamam lu muy wax lu muy dox lu constitution bi je la constitution bi wax mu ministre ministre ne tamit constitution lu wax tamit ko directeur directeur bi ne la la la constitution bi comme ni yàlla jàngale yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ud'u ila sabili rabbika bil xikmati wal mawizati alxasanati wa jaadilhum billati hi ahsan mooy ñu joxe ko ci yar ak teggin mu ànd communication bu rafet su booba seen jaan wàcc nañu te incha allahu dina jag ci ñu bari kilifa aada yi ñoom tamit ñu teg kitaaballahi wa sunnat rasulillah sallallahu alayhi wasallam seen kanam lu ñuy wax balaa ñu di ko wax ñu seet lan la téere yàlla bi wax balaa ñu def dara ñu seet lan la sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax su booba ñu jàngale ko njaboot gi comme ni imaam Mbaye waxee léegi ñu bañ a am couleur ndax diine amul couleur bu dul benn <laughs> mooy couleur verte couleur verte mooy verdure verdure mooy jàmm tariqa dafa ñëw pour gën a féddali sa diggante ak sa diine sa diggante ak sa borom mais ñëwul pour féewaloo wala ñëwul pour fenqaloo kenn ku ne soo xamoon tariqa nga doxal tariqa bi comme lu mu waree du am benn problème ak sa beneen mbokkum jullit ndax da am li ngay tal lu dul xuloo wala xiiro wala ŋaayoo wala gaaruwaale su booba njaboot gi nga yar leen ci yooyu am na nag ñetti xadis ñu nga xam ne dañoo dañoo xadis yi yonent bi sala innama utudd utir jawaami alkalami moo wax benn wax boobu day tënk ñëpp ndax mosoon nañu ko laaj dañoo bëgg xam jullit jullit jullit jullit dëgg dëgg dëgg mooy kan wala mooy ban ban façon nit mooy jullit dëgg-dëgg mooy jullit bu bari jàmm rek. macha allah <laughs> ah. bu bari jàmm rek. Mm. mooy al muslimu man salima al muslimu min lisaanihi wa yadihi kon nag loolu mooy comportement ak jikku. Mm-hmm. moom la ñu xool xoolaat incha allah. macha allah comportement yooyu ak jikku yi Hajj Mansour dinañ ci ñëw yu ñu delloo tuuti ci ginnaaw euh, yéen ñi sekk plateau bi jàngoro ji ba mu tàmbalee ba tey ñu ngi dégg mbas mbas mbas lan mooy mbas. Euh, mbas. wax wolof la mooy loo xam ne danga nga koy yaakaare fi mu ñëwee la côté bële nga bëgg ko jaare côté bële mu njóoy la mbas la jaare côté bi wala mu ñëw foo ko foogewul bett la waaye balaa la eh, ci borom bi nag lay jóge xam nga lu ci musiba ñu moomale ko keneen wala feneen wala leneen buñ ca bëgg am ndam dégg nga ba mu jóge fi mooy kenn lañ koy moomale muy borom bi subhanahu wa taala te borom bi tamit balaa bu mu wàcce ku tedd ki wax na imam Moussa wax na li li ñu fi yonent bi baye muy alquran ak sunna te sunna dafa wax ne dégg nga balaa bu dikkee ñaare ko fi jëlee ñaan ak faju ñaan ak faju ñaan kuñ koy def ki fi indi balaa bi mhm. moom lañuy ñuy ñaan duñ ñaan keneen duñ ko yan keneen te balaa li tax bu ñëwee toog mooy ñu di ko xas ñi di ko xas di xas balaa bi di ko móolu mhm. ba noppi am ñun ciy gaaral te seen yoon nekku ci loolu fu mu amee ci balaa rek du dem day toog ñun nag balaa gi mi ngi bëgg farankulaay ci dëkk bi de. dana dana fi jóge. incha allah dana fi jóge Thierno Arti. <laughs> Thierno Arti Thierno Arti Thierno allah macha allah moom Mbaye. Mm-hmm. Euh, yaay maam. ba tey ñu des ci wàllu diine. ñu ne yaay maam wax na ko léegi nee mbas la. Mm-hmm. est-ce que euh, ci temps yenant bi wala ci li ngeen jàng. Euh, yu mel nii daana doon xew te bu xewoon lan moo ciy taxawaayu askan wi wala lan moo ciy taxawaayu autorité madame Gang gis nga dafa mel ni lu xew tey rek xewoon na walakum fi rasulillahi uswatun xasana ba yàlla joxe ne yonent bi wax ko ko yu bari yonent bi alayhi salaatu wasalaam doy na coro yu te jàngale na lépp dafa wax wax bu gàtt ci barab boo xam ne mbas am na fa moo xam dëkk la moo xam réew la bay mu wax ci wax bu gàtt bu kenn dem bu kenn dikk wax bu gàtt la bu kenn dem bu kenn dikk moo tax bi ñu nañu dakkandeel nil julli mbooloo yi ci jumaa yeeg jàkk yi ndax fii bi yëf yi jaar ba tax ñu mel ni ñu tëj jumaa yeeg jàkk yi fekk tëjuñu jumaa yeeg jàkk yi wax yonent bi dundal pour loolu di lor jaamu yàlla yi bañ dugg ci néegu yàlla bi moo tax ñu tëj ko waaye julli ak jaamu yàlla taxul ñu tëj ko de mm-hmm. ba noppi it ko cëslaay buy dellu ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni lu mel nii bu jógee lu mel nii tudd nga mbas imaam firi ko bu rafet mm-hmm. loo xam ni cëtëng lay doon aw cëtëng mooy loo xam ni day jékki-jékki rek bett la nga bëgg ko jaar fee mu mbas la jaar fii mm-hmm. ñii ni balaa mm-hmm. waaye bii sax danga nga naan weesu na balaa mm-hmm. mais da naan wabaa la waaw parce que wabaa dafay ubale penkook soowu sa la am ak ni mbir mi gaawee ak ni mbir mi gaawee ba nekk kon weesu na balaa sax yonent bi ni woon nag lu mel nii bu amee wax ci tegtale ci loo xam ne ku ko def mucc Mm-hmm. alayhi salaatu wasalaam ni almutajiu fiiha xayrun min aljaalisi mm-hmm. mu ni lu mel nii de buy am ka mu fekk tëdd moo gën a mucc ka mu fekk toog mm-hmm. mu fekk mu tëdd ka mu fekk tëdd waaw bi nee na moo gën a mucc ka mu fekk toog ko waral déglul mu ngi continuer aywa lu ko waral mhm. mooy dafa dafa tëdd waaye wal jaalisu fiiha mhm. ka mu fekk toog nag ah. xam nga ka mu tëdd la commencé mhm. mu ni wal jaalisu fiiha xayrun min al qaim ka mu fekk toog moo gën a mën a muccit su boobaa ka mu fekk taxaw est fa de mu ni wal qaimu fiiha xayru minal maashi nee na ka mu fekk taxaw te demul moo gën a mucc su boobaa ka mu fekk génn bay dem waaye tamit wal maashi fiihaa it xayru min assaa'i ilayha nee na ka mu fekk génn sax di dem moo gën a mucc ka nga xam ni moom ma ngay dem jëm fa yëf yooya am benn moom mu nekk ci moom mu yóbbu ko fu mu amul woon mbaa mu dem fa nga xam ne fa la am mu jëlee ko fa yóbbu. kon kay yonent bi bàyyiwul dara. wallaahi wallaahi kon recherché wu a wax. ah loolu la recherché moo ko jot a wax. wallaahi wallaahi waaw. la ñuy topp. wallaahi wallaahi. gis nga bu ñu defoon. Lamu jangal won ci ndial njal ba mu wacce Chine feñ fa buñu defon lamu waxon du tasaro way déedéet déedéet déedéet bu ñu defoon la mu kon du tasaro mukk lu mu bu ken dem bu ken dik mhm. am ñu nekk fi di fexé ne ña fa nekk nañu ñew mhm. ci ni mba ca na mhm. te pir ah te yonent bi ne woon bu ken dem bu ken dik mais buñu defon lamu wax yema la ko fa yàlla subhaanahu wa taala ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina tax ba yëf ya yem fa ba dem yoonam te du daal kenn du la dati kenn. imam Moussa. waaw wax ni léegi te ñu jàkka yi. waaw déedéet ñu jaamu yàlla yi déedéet. micro bi micro boobu ñuy tuddee coronavirus. la ñuy bañ xamoo ndax am naa ko. Mm-hmm. xaw ma ndax am nga ko. comme lënt na na ku nekk téye sa bopp. mais mais Imaam ma defe ne woon nii comme dañu comme dañ ni euh, balaa la. waaw te ñaan rek ci ñaan rek mën a jeexee. waaw est-ce que duñu daw dem ci jàkka ji dajaloo fa ñaanee foofu yàlla. waaw xam nga lii wolof di wax naan saafara bu naree jur jàngooro uh-huh. bàyyi ko moo gën. imaam bu naree jur jàngoro imaam bàyyi ko moo gën. bàyyi ko moo gën. imaam waaw foofu sax man soo dama fi dugg. Uh-huh. xam nga lu tax gis nga. gis nga ñi jakku ñaan pire buñ ko defé sax ci jàkk yi allahu akbar dedet ñi jakku ñaan pire waaw ñi li li li li li toj ñaan hmm. ñaankat yi pire buñ ko defé ci jàkk yi ci ci ruq yi la mané gañan ci ruq ruqan yi te gañan ngi dañuy bay cenn mu tontu gañan <laughs> ci tontu de hmm? <laughs> ah, ngeen jëfati hmm. ndax uh, safina rajo askan wi di taxawu askan wi ci seen émission bi wante di daara ndax tey ñu bari ñu ngi wax mbas mbas mbas wante xamuñu woon lan mooy mbas tey nag ñu bari xam nañ lan mooy mbas te mbas bi nga xam ne dafay juuy jóge nii jógee nii jógee nii foo foogeelu woon soo ko bëggee xeex da ngay sonn loolu moo tax suñu waxee nañu xeex corona mu jóge fi man boobu kàddu dis na ci man déedéet nañu fagaru ba corona jóge fi wala nañu def pexe ba corona jóge fi wante ki nga xam ne xamuloo fu muy jóge te mun na la njuy saa su ne soo ko bëggee xeex soo boytulee da ngay door miir te doo ko dal wallaahi kon imaam abdullahi jàngal ñu macha allah mm-hmm. euh, lu si des nag yéen ñëpp borom xam-xam ngi wax ngeen ne su dara xewee lu mel ni li koy daaw gaaw a dindi mooy ñaan ak sarax mm-hmm. imaam abdullahi mbaay wax na ne ñu ñaan dëgg dëgg dëgg dëgg duñu faral sax di ñaan di jàkk loolu dëgg dëgg la ndax ñaan dëgg dëgg dëgg dëgg bu gën a ñaar bu gën a wéet bu gën a sutura ñu bari ñu ngi ñaanal réew mi yàlla def fii lu bare bare ci jàmm wala yàlla teggi lu baree baree fii ci ab tiis mhm. duñu wax ci rajo duñu wax ko ci duñu ko def ci jumaa mhm. wala ci jàkk mhm. duñu wax ci mbooloo ndax na am na ñi nga xam ne yàlla mu ngi leen di xool rek su leen xoolee meram teggeekunu teggeekunu ci àdduna bi macha allah wala inna nazara ilayhim sakana xatabuhu am na ay yàlla am na ay jaamam ñu ngi ci kaw suuf soo leen xoolee rek meram denc jaam yi loolu moo tax jaam yi du ñu alaku mbonte yi ñuy def ak jikko yi nu mu yàqoo mhm. xeet yu njëkk yi suñu defee génne walla walla lu tuuti mu alak leen wante tey tey ji ñu ngi def rek di gën a rakkaaju wante mu ngi ñu muñal rek mën naa am ngir jaamu yooyu mhm. mës naa wax benn euh, wax ci téere yi laa ko gisoon mhm. ngeen baal ma ak nag dafay xaw gudd tuuti su ngeen ma joxe bismillah am na benn jamono mhm. xam naa ne imaam nii danañ si dolli yeneen ndax am na ñi nga xam ne ñëw nañ ci rimaaxu mais boobu déw ma ci moom mooy ki waxoon ne ne danaa fexe boo yàlla mer suba pour mu taw boobu beneen waxtaan la mm-hmm. Mm-hmm. mais pour wax na ne am na fu yàlla ne mm-hmm. fu ñu foogalewul am na fu mu ne fu ñu foog ndax noonu yàlla mel subhanallah dañu foog fi yàlla fekk fa yàlla mais dañu bañ a foog fi yàlla de fekk yàlla mu ngi foofu loolu moo tax bul xeeb kenn kenn ku ne am ci moom njort bu rafet rek su boobaa nga dajeek ku am wala nga dajeek borom amoon na benn béykoor bu amoon taw bi jafe taw bi jafe taw bi jafe nit yi ñaan nu def lu ne yàlla indiwul taw ba yàlla dogal ngeen baal ma ak ci waxin bi benn jaam mu ngi ci maison d'esclave yi ñu ngi koy jaay yaramam yëpp ab góom la xiiboon la mu jóg mu jóg ndànk dem ci àll ba dem bu ci kaw garab walla ci kaw xeer bu kawe kawe kawe mm-hmm. mu xool asamaan bi mu ne sama borom xam nga ni dinga maa bëgg te yaa ne ku xaru du dugg aljanna mm-hmm. ki dugg safara danga koo mere damay xaru léegi léegi ma dee nga dugal ma safara soo tawul soo tawul jaam yi mhm. damay cëppalu léegi ma dee ma xaru so boobaa nga dugumal safara mhm. soo ma dugalee safara duggal nga sa soppe safara te xam naa ne danga maa sopp rek asmaan bi xiin taw taw taw taw taw macha allah am na beneen nag ku mel loo oustaz ab imaam abdul abdullahi mbaay mhm. moom mu ngi demoon taxañ gis xale bi déglu xale bi lu mu wax ak mu xant ak boromam xale bi bu mu wàccee dem ñibbisi si kër kilifaam moom tam mu topp ko ndànk ndànk mu topp ko ndànk ndànk bu mu gis fu mu dugg mu dem këram mu bàyyi boo si ëllëg si mu ñëw mooy dafa bëgg jënd benn jaam patron jaam yi patron kër gi indil ko ay ponklu jaam yu am doole am kattan am taxawaay mu ne ñii ñooy première qualité koo ci bëgg ñu waxaale mu ne déedéet bëgguma kii bëgguma ñi mu indi deuxième qualité mu ne bëgguma ñi mu indi troisième qualité mu ne bëgguma ñi mu indi quatrième qualité mu ne bugg ma ñi mu ne ah li ma yoroon ci jàmm yëpp de jeex na ñii rek laa yor mu ne amoo foofu beneen mu ne déedéet mu ne seetal am am na ku ñëwul bu yàgg rek mu xalaat xale boobu. mu ne am na ki nekk foofu kooku moom amul fulla amul fay <laughs> am waaw amul benn njëriñ mhm. kooku moom dama la koy jaay dama la koy may gratuitement comme cadeau na ma tëddeeku rek mhm. na jóge fii rek mhm. mu ñëw di daagu ndànk ndànk bu mu ñëw waa ji bu mu gisee bu mu gisee rek xëm mu ne kii lu mu jar danaa ko jënd ma ne loo koy doyee mu ne dinaa dinaa ko jël mu ne may naa la ko <laughs> kii moom du ko jël du <laughs> mu génn ci loxoom xale bi tamit jëli hmm. xam ne ni sekkiram feeñ na si diggante ma ko li ne ba nekkoon dina ko jëlal wax mm-hmm. mu dem tëdd fi mu daan tëdd xam nga mm-hmm. fi mu daan tëdd fi fi mm-hmm. mu tëdd mën ci neefere fas yi ak mbaam yi foofu la doon fanaan mu dem tëdd jekk Jangan yow lo xam day jor borong. ne eh, sama borom secret bi nekkoon sama digant ak yow de feeñ te ñun ñaar ñoko xamone xamoon dama bëgg nga suturaal ma nga moom sa sa kenn baña xam sama secret ak sama secret bi ak sama sama diggante ak yow automatiquement yalla mom ko mhm. ñu tok fi di xaar di xaar di xaar ñewul patron bi mer mu wax ponkali demal jëlee ko demal jëlee ki ni rek la mel mhm. nangam nangam ñu dem rek fekk ko mu ngi mu ngi ne nem. allahu akbar. waa ji bi ko gisoon nag commencé jooy nag jooy bu dul jeex. ñu tapp tappal ko bu xelam dal. ñu ne ko lu tax moo nettali leen histoire bi. waa ji nag patron jaam bi mu ne ñi ñëpp bëral naa leen. bis ni du mu daa du mu jaay benn jaam. kon nag fi yàlla ne. Mm-hmm. yàlla dafa xam. kon nag jaamu yàlla ñi nga xam ne ñu ngi ñaan yàlla mhm. yàlla dindi fii lu baree baree bare mhm. wala yàlla indi fii lu baree baree bare mhm. kenn xamu leen wala am na ñi nga xam ne ne xam nañu leen am na kilifa ñi nga xam ne ne xam nañu ne borom ijaaba lañu lu ñu wax allahuma yàlla nangu mais am na ñi nga xam ne ñu ngi seen rukk kenn xamu leen lu ñaan yàlla yàlla nangu ñu ngi ci bureau yi ñu ngi ci marché bi ñu ngi ci fépp

qaafin an il wara ka ixfaihim an ilmihim qadri borom bi dafa jël mbir yi tas ko ci biir jaam ñi soo demee ci maawaqaa bu Cheikh Alaaji Umar Fuuti dafa wax ne fi gën gaaw alako mooy Sénégal gën a gaaw alako alako mooy waaye fi gën gaaw jëriñoo mucc mooy Sénégal ñaar yëpp am na fi mhm. parce que lii lii Thierno Hamidou wax mhm. dafay bari Mm-hmm. est-ce que te sëñ Babacar Sy am na benn ziar général ci loolu la doon waxtaan na ngeen mooy tonti bu baax mm-hmm. na ngeen mooy tonti bu baax man di tiit naa ci seen ànd ak seen jëflante mm-hmm. euh, Thierno Hamidou wax na wax bu am solo ci kooku mu indi gis nga gis nga xam nga dafa dafa ñëw ñu mun a jaam bi mun ne ko kii duma la ko jaay dama la koy may parce que tàqali ko moom rek la bëgg parce que amulu ko njariñ looloo loo xam nga looloo tax looloo tax buur buur misra mayoon mayoon saarata xaajara moo doon sabab bi parce que xaajara dafa bokkoon ci jaam yi jàppoon téye leen foofu ci kër gi mhm. am ay jongama yoo xam ne tabarakallahu buur bi soxla leen xaajara nag doon ku yem ba nag fu mu toll di muuru nanguwul génne kanam kanam gi mhm. dégg nga te fu mu toll di sàbbaal te bu guddee day fanaan a jooy ba ba lëjël ñi garde jaam ñi nag nag gis nga xale bi boo ko muuree bu la xoolee da ngay da nga da nga ko ak muuraayam te fu mu toll di sujjóot di jooy am na lu muy wax ci abaraani ya ci soriyaani ya mm-hmm. wax boo xam ne ñoom xamuñu ko mm-hmm. mooy lan day jooy di bàkk boromam ba noppi nag du sol yére yu baax di lëfër lëfëri mel ni jinne mm-hmm. dégg nga moo tax bi saarata ñëwee foofu ànd ak sidna ibrahim alayhi salaam la ca xew-xew ca dégg nga ba buur ba tuub daf ne dafa na dafa ne ki euh, bëkk néeg bi dem leen nga indi leen jaam boobu nga xam ne ndax su ko defee ñu yóbbu ko lillaahi wa rasuli mu teggee ko ñu kii moom jinne ji mënuñ koo sànni ji mënuñ koo jaay te amuluñu benn njëriñ te mi ñuy bëgg a jommal nañ ko ko jox gis nga ko ba mu ñëw ba mu ñëw ñu mooy ko saarata ba mu accès dafa daal nu mu réet mu rekk bi hijaab bi daf koo dindi daal di tafu saarata jooy saarata uuf ko bég ci moom mu daldi nekk nit ku yiw ku sell ci kanamam mu dem ko moom la jox Seydina Ibrahima moo jur Seydina Ismaïl foofu la Seydina jaar mu ngoog mu ngoog mu ngoog mu ngoog mu ngoog mhm. xepp xepp xepp Mhm. ñëpp xam na waliyu la mhm. Mhm. moom xam na waliyu la borom bi moo ko gën a xam subhanallah kooku ñëpp xam nañu ko mun nañu ko moytu kii waliyu la yàlla xam na ko wante nit ñi xamuñu ko kooku tamit mun na am yërmande wante kii nag waliyu la xamul waliyu la nit yi xamuñu waliyu la moom wàlliw la. boobu danse la nit ñi xamul ne wàlliw la. moom moom ci boppam xamul ne wàlliw la eh, eh, eh. te kooku moo gën a am danger. mooy danger kooku soo ko defee dara rek. al mm-hmm. arsi yëngu. allahu akbar loolu moo tax moytu am solo. Mm-hmm. koo gis rek am ci moom mm-hmm. rafet njort. nga bëgg ñëpp ormal ñëpp. teral ñëpp loo mun. nga defal leen. loo munul nga moytu leen. ca Naamid. ca Naamid waaw. fofu nga dugg geej gi xam nga waji dafa tedd ba guddi waaw mu jog tok ci kaw lalam dal di ne man day bu suba dana dem ci bitu naar bi ma jënd fi ben carnet fas naa na a nitu yalla yi ci ñima ci xam xëy fanaano yéene boobu xey ñew ci bitu bi nako naar bi jaay ma fa ben carnet borom bitu bi te jaay ma big mu jaay ko carnet ak bik muy bëgg mu ko bind ma ci bop bi borom bitig bi bind ma ci bopp bi parce que ñoo nga nar a recensé ci laa bokk diw laa tudd mu ne ah mu ne ko waaw mu dal di sukk dal di bind turam génn di jéggi tali bi seen benn góor bu taxani woon benn gaana ngeen baal ma bu taxawoon ñëw ci marché bi di jaay saam dërëm ne ca kaw sareetu mbaam ba ca kaw matt ma ne ko eh sëriñ bi mu mu ne ko ah mu ne ko teg ma ci naar bi ci borom bi ci diw laa tudd ñu nga renaissance ci laa bokk da ngay bëgg a ah, mu bind mhm. jéggi tourné benn angle di bëgg jàdd ki nga xam ne day jënd day dem ci robinet bi duy yenu xandi ndox dugg ci ruq bi jaay ko xandi juróom damaa duyuwaat mu romb ko mu ne tawit ci mboom na ko teg ma ci borom saretu matt bi. ay nit ñuy doyee lañ. ndax ci ñooñ laa bokk diw laa tudd mu bind. Mhm. mu dem bay bëgg nag tourné nag bur bëgg wuti nag kër Thierno Hamidou Bane ndax imam ratib bi mhm. moom fa la doon jëmi. ne tël di bëgg wér benn xaatif woo ko ne ko sëriñ bi sa kayit bi teen koo lem <laughs> nga dem toog. ndax wa maa yaalamu junuuda rabbika illa huwa borom bi sa borom moom dong moo xam li mu am ci ay gaay yow mënoo ko xam parce que fa mu doon dem du ñooñu wala fa mu doon dem ñoom la wala mooy li nga wax nii mën naa nekk wali ñu xam ne wali yu la borom bi it dégg nga falal ko boppam su ko defee ku jóg mën nga faa jubali am na ñoo xam te nag li li nëbbu moo ëpp alhamdulilah Seyda Ñuma man premier point bi su ma doon tiré euh, xaayida bi conclusion bi dama naan ñuy dégg yàlla na ñu dégg waxtaan bi amiin ndax kon koo gis di ko jox ñaari loxo dëgg la ndax ndax koo gis nag da ngay jàpp ni moom la dëgg la mhm. par force par force nga day ak moom dëgg la mhm. su dee yow koo gis rek jàppal ni la ma waxoon ca feebar ba mhm. ma ni pour nga mucc ci wala nga pour nga fagaru ci jàppal ni koo dajar rek moo ko am mu ngi ko yor dëgg la moytu ko waaye it pour nga pour nga mën a teral euh, wa nitu yàlla mhm. koo dajal ci mbedd mi muy oto bi mhm. muy atelier bi muy liggéeykaay yi xataa mhm. ba sa doom bi si biir kër gi sax jox ko cër bi dëgg la kon dootoo kenn du xeeb kenn da ngay jàpp ni rek li li li gën a doyee di si àdduna soo ko doon tànn da nga man la koo gis sa jàppal ni ma moo yor bi

nekkinu nit ñi ci biir askan bi Imam Moussa. jërëjëf Adja Ñima mm. euh, man damay jéggil tuuti samay xalaat. bismillah. am fu ma ko jëme mm-hmm. damay faral di dégg ci ceer na muy wax ni kuy ndaw ba daanu. daw ba daanu mhm. Mhm. bala ngaa seet di xool fa nga daanu mhm. xoolal la fa kasal ba pare kuy daw waaw bala ngaay nemmeeku di xool fi nga daanu gëstul xool la la fa kasal lan la waaw ah. xam nga dafa am ñu ñu tuddee scientifique ak ñu tuddee aqtaab yi te mooy gaay yàlla yi dama mas a dégg ci sëñ Cheikh mu ni bokkuñu point bu ñu déparé. bokkuñu point bu ñu déparé. déedéet. Mm-hmm. nee na bu dee scientifique yi. Mm-hmm. mahaza lii la. Mm-hmm. nee na fa la ñuy déparé mooy fii ñu toll ci point bi ñuy waxtaanee lii lan la. mu ne bu dee acta bi. limaza lu waral lii lañuy seet ñoom fa la ñuy déparé. lu waral lii. waaw. Mhm. ak lii lan la ak lii lan la. Mhm. mooy fi daanu ak li ko teqatal. Mhm. <laughs> léegi nag damay bëgg yëf yi ñu ñu du ci boole. di xalaataale. lu waral lii. sama xalaat yóbbu ma ci. ni xaw ma xaw ma de. lu ñu def. mbaa lu ñu wax mhm. mbaa nu ñu melawoo mhm. ba tax yàlla xëy indi dogal bu tëj masjidul haram tëj masjidul rasul mhm. tëj masajid yi lan la ko jar a dellu ci lu waral lii parce que booba ba tey bi affaire bi amee ba tey ci mahaza lañu ne lii lan waaw mahaza ji nag moo ñu yóbbu ci raxas loxo yi moo ñu yóbbu ci wattandiku mbooloo yi mhm. moo ñu yóbbu ci jotaay bii ñu def tey mhm. mais lu waral lii nu ñu melawoo mhm. wala fu moo ni dogal boo gis am na sabab hmm? dogal boo gis am na sabab te yonent bi waxoon na alayhi salaatu wasalaam ni yàlla wan na ma jamono ngi ñëw gis naa ni lu bon dana dema dema dema dem ba dootul ama dañ koy dañ koy fësal di ko def ci mbedd yi muy fës di am dëgg la bis bu loolu amee yonent bee wax de bis bu loolu amee feeñ ci aw nit yàlla dina la nattoo feebar yoo xam ne seeni maam xamuñu ko woon waaw ca lañ toll de waaw léegi nag luy solution luy solution yàlla subhanahu wa taala bu jékki-jékkee maanaam fu tooñ bare ay bàkkaar bari yàlla teengal jamonoom. déet benn werante na wu mhm. fu tooñ bare bàkkaar bari teengal jamonoom. teengal mooy dootul yolomati. Mhm. mooy day deme nii mu demee. Mhm. ngir fàttali la pour nga fàttaliku sa bopp ba mën koo delloo ci moom ndax foo moom fa la mucc ne. ak mucc. fa yàlla rekk subhaanahu wa la nekk. kon nañ ciy boolewaale di tiit di xalaat. at mi uhuh. at mu raglu la arafa du am ren wallahi ndaysan nga xamni ci la yalla dan jegeñe la bopam jaamam yi di seedaloo malaayka naan big naa tey uhuh. ñi fi tew ñépp gorel na len te kep ku ñu ne jéggal su nga xam jéggal la ndax big gum arafa ah? uhuh. masjidul haram duñ ko tawaf tay ren labbayka allahumma labbayk du jib ren mbaadu yalla mbaadu yalla dafa wotewul lu tax woowunu ba mm-hmm. ba ñuy mel ni ba ñuy mel ni ñu ñu mise à pied nanguwul nga dugg masjidul xaram mm-hmm. tëj nañu jumaa yi lu ñu def sanction la de mm-hmm. ñu mel ni ñu ñu mise à pied lu xew luñ def ma nag ñu ñu di ci boole wala xalaat yooyu te rafetal sunu njortit ci moom ndax nekk gi mu nekk di buur bu neex a nekk jaamam ndax tedd nga am subhaanahu wa buur bu neex a nekk jaamam mhm. subhaanahu wa taala na tedd nga am mhm. ku bëgg a jubóog jaamam yi la lool kon damay dellu imaam ci li ma waxoon waxoon naa ko fii mhm. ni li ma sama seetlu jox te booba lii ñëwagul dafa mel ni yàlla digganteem ak jaamam yi neexatul mosuma ko wax fii kay kay wér ma lay niru dafa mel ni digganteem ak jaamam yi neexatul bu baax ci ñoom ni fa ma ko seetloo ba tax ma wax ko noonu mooy nature bi dafa mel ni daf ñoo gedd ndax dara safatul la mu daan saf déedéet du fruit du légume wallaahi du fruit du légume caf koy yépp dem na ma ni mbaadu suñu digganteeg moom dafa neexutul te moom nee na moom nee na man du ma tooñ inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum kon fala tazalamu li may moom yépp sañ yépp man yàlla am na loo xam ne dama ko araamal ci sama bopp mooy duma ma tooñ du tooñ mukk mhm. kon ku tooñ bu suñu diggante ak moom neexatul kon ñoo tooñ kon mhm. ma teg ci ni ànd ak loolu lépp bëgg na juboo mhm. mais est-ce que jaam yi bëgg nañu jubóog moom. kooku waaw foofu jar a lijjanti. Ah. a lijjanti. est-ce que bopp. moom bëgg na jubóo jubóo rek la bëgg. rek la bëgg wallaahi. ma ne waaye ndax jaam yi bëgg nañu jubóog moom. fa inna rahmata rabbi xiina natlubuha nan woon boroom luy lëkkoog xemmem yi ak càkku ya sëñ Babacar Si moo la yàlla bu ñu soxlaa yërmandeem mu mu mu may nu ko nañu koy won ay jëfin ak i melokaan yoo xam ni dina ci xamee ci ñun ni ñun soxla nañu lii waaye dafa mel ni ñun dañoo bañ pom tey la gën a bari caaxaan yi tey la gën a bari yu jubadi yi tey la ñu bari. ma ànd ak loolu lépp nag bëgg na juboo moom yàlla mais est-ce que ñun bëgg nañu juboo ma dem na ci dama dem ba tollu ci sax mom suñu borom. subhanahu wa taala. dafa soxla médiateur. sox dem na ba soxla médiateur bu ko jubal ak jamam yi. ndax jubo rek la bëgg. ma wax fi ni médiateur bobu mu soxla. ma man xamna médiateur bi. xam nga médiateur bi mu soxla. waaw pour jubale koog askan wi. pour jubale koog jaamam yi. pour jubale koog jaamam yi. waaw. Mhm. médiateur bi. Mhm. ci mbaaxam. Mhm. xamal na ma ko. xam nga kan la. Ah? mooy kenn ku nekk. jàppal ni. yaay médiateur bi ko war a defareel sa digganteeg moom. foofu la waxtu yu tolloog ñun de. nañ ko jubboole. macha allah waaw. waaw bëgg na juboo lool lool waaw ndax wax na ko mhm. bëgg na juboo torop ndax wax na ko mhm. Mhm. déggoo li mu wax hmm. bi mu demee ba digganteem ak jaam ñi neexatul ba jaam ñi tiit ba xamatuñ lu nekk te amuñ fu nu jëm nag ndax laa man laa mal jaa wala man jaa min na laa ilaa ilay daf leen a hëyyu ne istaxfiru rabbakum wallaahi مولاي وانا استغفر بغنا جوبو لي امام موسى واخ مون استغفروا ربكم استغفروا بون لن كو واخي موي امنا لون ديف كاي لن غن بالوما باسكو يينا ما توي تا امول لو دون مان جيس نغا سوغن كو ديفه انه كان خفارا بارنا بور جيبي والله تكات يرسل السماء عليكم مدرارا تو يمدكم بأموال وبنين جيخنا loolu la. corona bi ci. kon corona bi day dem. waaw mm-hmm. day dem tey tamit nag tey tamit nag mahaza ak lim ak ak ak. limahaza limahaza ah. mm-hmm. lii lan la. Mm-hmm. lii lan la mooy mooy li xew fi mu ne nii. lii lan la nu ñuy def bu mucc ci nu ñuy def bu mucc ci. léegi nag lu waral lii. xam nga lu ko waral. Mm. ñun ñoo ñoo juum ñoo tooñ. léegi kuñ tooñ. Sun bop tuan gi ton suñu bop nak nan lañu def bu mucc ci nañ dem ci ki nga xamne ne mooy ku togn ak ki ñu togn mm-hmm. ñun ñoo togn ba noppi togn suñu bop mm-hmm. nañ dem ci borom bi mu àtte ñu ñun macha allah nañ sukk delu ci mom fa tabarakallah ram jéggal ram te ñaan imam am lo Thierno Hamidou wax mm-hmm. mu ne bala ñaar rek fi mëna jëlé ñaan ak sarax ñu ànd ak sawar ah, ci loolu dama wax dama wax président ne ko wax xam nga man président ci ñu koy xelal laa bokk macha allah mais maa fal sama bopp nag moom faluma <laughs> mosuñoo toog mi Thierno Hamidou wax na ko léegi mhm. nee na toog ak chef de l'état xanaa ci xew-xew yi mosuñoo mhm. mhm. toog waaye ci ñi koy xelal laa ci micro bi di wax man ci ñi koy xelal laa bokk euh, xam nga lu ma wax dama ne gis nga yi ñu génne di ko yóbbu nan nan dimbali nit ñi suñ bëggee balaa bi jóge fi mhm. waat naa ci yàlla ne bu ci dara delloo ci banque yi balaa bi du fi jóge dëgg la dégguma ne président li mu génne mhm. ak ñi génne dimbali ko ci ban dajee bu ci kenn dugalee dara ci banque bi balaa bi du fi jóge na dem ci seeni borom parce que borom bi loolu la wax mhm. innama sadaqatu lil fuqaraa wal masaakin te as sadaqatu lil muhtaajin sarax ñi ko soxla lañ koy jox hmm. loolu tax borom bi kontaan te nee na sadaxatu sirri dutul xadaba rabbi nee na sarax bu nëbbu hmm. day day day day day day day seral merum borom bi te fi mu ne gannaaw imaam Moussa ne daf ñu mere sarax bu ànd ak sutura sarax bu ànd ak sutura hmm. day fay merum borom bi te imaam Moussa ne daf ñu mere te ñun xam nañ ne daf ñu mere amir xam nañ ne borom bi daf leen a mere xam nañ ko Europe xam nañ ko. ñëpp ñëpp jamono ji Arabie seen bopp xam nañ ne borom bi nar a leen tëj néegam. ñëpp ñam nañ koy xam xam nañ ko. dëgg la te man gis nga imam Moussa. Mm-hmm. dama am tiit mu ma roofu léegi léegi léegi. Mm-hmm. léegi la ma mooy bim na arafa du am. waaw nit ñi bàyyiwul man man damaa defoon ne sax loolu xaw ma ko fàttewoon naa lool. imam Moussa imam Moussa mii. Mm. ku matu la. macha allah waaw xam dama ci jooy. non fii laa waxee fii. fii fii laa waxee ba ku ñuy wax Thierno Mansour xaw ma dem. xaw ma nan ak Mansour dem daf ma woo. na ma loolu nga wax lañ wax ca daaka ba. fii fii bi may def émission fekk yow ñëwuloo yaa ngi dégg de. <laughs> Euh, dama ne daaka ba xadara la. suuf la bu yàlla barkeel. boromam doon ko wut Thierno ma Saïd radiyallahu taala anhu diko wut ba yonent bi nako fi la borom sa laaj borom bi nako fi la mu tok fa def fa lam fay def nit ñi fekk ci ko fa muy barab bu sel way xolal lañ fay def manes nako defé fenen parce que ñako fay def ñom ñoy dem kéro lu la wax fi ci ci ci safena FM ñako fay def ñom ñoy dem gannaaw nak léegi galankor amna yéen ñi doon dem la ngeen fa doon def def leen ko ci seen kër yi waaw tilkal amanatu تكفي تكفي تكفي من تكون من من تكون لها مبلغا يأمن الإيصال su ko defee bu ñu ko defee rek dana ko jot waaye nag duñ am nag barab ba barab ba duñ ko am. loolu duñ am barab waaye mën nañu am yoon ba. mën nañu am yoon ba. Mm-hmm. araf nag fan lañ koy defee. arafa nag moom jeex na loolu moom fenn doom wala du am ci ila yawmil xiyaama. macha allah mbokk yi déglu Safina FM ci 98 point 2 yéen a ngi seen émission taxawu askan wi. ñu ànd ci ak euh, ne mooy imam Thierno Hamidou Bane ba tey ñu des ci euh, coronavirus bi euh, ma jublu ci Thierno Hamidou ñu gis ni côté comportement. Mm-hmm. ñu tegal teg ay barrières. nit ñi ñu defal leen digle ne leen corona bi balaa muy ñëw bàyyi leen lii bàyyi leen lii bàyyi leen lii ñu bañ koo bax nuyoo geeg joññante geeg soirée yeeg ñoom seen nit ñi bàyyiwuñ ci dara. corona gi ñëw kenn du dem soirée restez chez vous kenn du nuyante boobu euh, dañ doon wax góor jigéen bu ñu nuyoon sax waaye dañ naan góor ak góor sax bu ñu nuyante. Mm. ñu gis ni euh, nit ñi euh, nangu nañu diggalu corona. kon mun nañu seetlu ni nit ñi gëmuñu du yàlla lañu la ñu gëm ngeen baal ma ci terme bi mm-hmm. mais ñoom corona gi la ñu gën a ragal ko sunu borom mi nga xam ne teg la na ay digleen mm-hmm. Thierno Hamidou waaw xajaa ñu ma jërëjëf ci laajte bi li may wax ne askan wi ragaluñu corona xam nga li ñuy ragal mm-hmm. muy dee wante dee nag dañoo war a ragal gannaawu dee soo ragalee dee mhm. da war a ragal gannaawu dee korona mhm. jaam la comme ñoom mhm. buur bi digle na lu baree baree bari ñu ne ñoo lànk subhaanahu wa taala comme ni imaam Moussa wax dafa mel no yàlla dafa mer jaame mere addunam bi wala mere jaam yi ndax soo demee àdduna di dox àdduna di dox bu ñu wax ne xale yu jigéen ñiy jaay seeni bopp nañu ko yoonal pour yéwanal leen nañuy jaaye seeni bopp boobu benn affaire la ñu ne déedéet ñu dem a dem a dem bu ñu ne ñu góor ak jigéen nañu ànd te ñu bindal leen kaayit bi nga xam ne day daganal seen diggante góor ak góor góor ak góor jigéen ak jigéen nañu leen bindal ñoom tamit ñu daganal seen diggante mbir bi nga xam ne même mala yi nangunu ko dëgg la ñu dem a dem ba ñu wax ne ne léegi nañu fexe ba nit di war baña am xaj ak seen diggante moom ak doomam diggante ak moom ak yaayam ñu ngi waaj xalaat boobu ñu dema dema dem bo ñu wax ne mala boo am mën nga def papier sa diggante ak moom mu nekk sa soxna wala mu nekk sa jëkkër su yàlla maree kay waroon na mer bu yàgg te yàlla dogal tamit ñi am doole imposer ko ci ñi amul doole mm-hmm. gis ngeen président Amérique bi mu ñëwee fii mm-hmm. def wax ne na réew yi nañu fexe ba homosexualité bi ñu yoonal ko mm-hmm. président am na gan bokk na ci sunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam teral sa gan surtout gan gu toll noonu. gan gu mhm. mu jaaxle. su nee waaw. Mhm. muy musiba mhm. su nee déet. muy musiba muy musiba. mais mu ne nun tollawuñu foofu. pareeguñu ñu tollaguñu foofu. ñeneen ñi ñu ne waaw tollaguñu foofu loolu moo ñu wala tollaguñu foofu. am na lu nekk ci xala xelam gannaawam. mais nag loolu diggante ma ko borom moom la mhm. ndax haalpulaar wi mhm. mbareemo wonko haali mhm. kono mbareemo wonko miiji ko <laughs> ko wi ah, mbareemo wonko haali kono mbareemo wonko miiji dañ rey lu mu xalaat leen ko am na lu mu lu wax wante rey leen ko am na lu mu xala lu mu xalaat <laughs> <laughs> boobu léegi nag war nañu xoolaat suñu bopp ñi yor charte réew mi mooy constitution bi lépp li nga xam ne dafa juuyoo ak li li li may nit ñi xel mu dal mhm. doonte sax réew mi réewu layik la am na ñuy jullit am na ñuy jullit mhm. mais ñu xalaat nun xel moo am mhm. fu xel am rek valeur moo fa am lépp li nga xam ne déppoowul ak valeur nu bañ ko dugal ci constitution animiste yi am nañu valeur ñi topp diina ñi jógee ci asmaan ñëpp am nañu valeur mm-hmm. Mm-hmm. ki amul valeur nag bëgg indi lu amul valeur ah. mu imposé la nanga ko imposé ci ñi am valeur mm. su boobaa nañ bañ su maamu corona ñëwaatee tamit nañu fagal ñu xam ñun seen bu ko gën a garaaw waaw waaw mm-hmm. parce que yàlla am na ay corona yu bëree bare bëri ñu ñu dul yi kon li yoon li imaam Moussa wax léegi <laughs> suñu toñé bur bi subhanahu wa taala bur bi bu bari yeen yërmande te bëgg na jubóo mo ne inna allaha la yuxayyiru ma bi qawmin hatta yuxayyiru ma bi anfusihim billahi billahi billaahi billaahi su ngeen démé ba joom mbir mi jaxaso damay jaxase lépp wante su ngeen delo na ngeen delo ci fi ngeen nekkon ma réglé wat lépp قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله mu ne ay eh, jaam ñi nga xam ne di ngeen saggane seen bopp ba njuumte ñëw mhm. su ngeen reconnaître seen njuumte mhm. maa ngi fi mhm. duma tax seen yaakaar laa taqnatu min rahmatillahi bu leen ay waa bu leen xaddi ci yaakaar sama yërmande man yalla, maa tudd yàlla ma ne inna allaha yaghfiru dhunuba jamian mu ne yàlla day baale mbooleemi bàkkaar bàkkaar bu mu munta doon yërmande yàlla moo ko ëpp doole soo tuubee rek nga fekk fi yàlla kon nag li ñu war a def mooy tuub li docteur yi wax nag loolu baax na ndax ñaari feebar moo am feebaru biir ak feebaru biti feebaru biir ñaan moo koy moo koy defar feebaru bitti faj moo koy defal comme ni nga waxee sànq ñaan ak fajar faj faju nañu ñaan mais ñu faju yàlla nee na xudu xedrakum ci alquran na ngeen jël seen mutukaay ngeen moytu yi docteur yi wax ñoom nañu ko topp ngir lan wala talqoo bi aydiyakum ila tahluka waaw bu leen yóbbu seen bopp fi ngeen di sanku docteur yi ñu ngi leen di sant loolu ci dén gërëm wax nañu xam ne docteur day sabablu rek kese kese ndax docteur docteur day feebar kenn bëggul feebar déedéet te moom day mu ngi faj ah, waaw te docteur day dee ah, te kenn bëggul dee kon euh, faj sabablu la ci nit nit di koy sabablu rek Mawlana Cheikh Alhaji Mouhamed radiyallahu taala anhu fekk na benn oustaz euh, di jàngale talibem di nek ci ñom di len dóor rek di len dóor rek bu jàpp ben xale xale bobu xut bu zaman la mu diko dóor dóor bor Cheikh mar ñëw mu ne ko bul dóor ar rahman allama al qur'an mu ne bur bi subhanahu wa taala jàngale na bo pare yow dañu la wax nak nga sababu rek tay mom moy mokalal ar rahman allama fii lu maadi la jàngale na ba pare yàgg na xamal na ba pare alquraanu léegi nag sabab lu moo fi des kon nag wér ak wéradi dund ak dee kenn moo ko yor moo ko yor mooy buur bi subhaanahu wa taala ñima wante nag nañu sabablu sabablu am na solo kon nag loolu la. macha allah yaa imaam am na solo men luufa ñu ngi ci émission bi ñoom Thierno ñoom ñëpp ñu ngi lay nuyu macha allah Cheikh Ahmad Tidiane Ndiaye mhm. eh, ca Géejawaay imaam moom itam macha allah mi ngi ànd ak ñun ci émission bi naam mbay euh, waaw léegi léegi waaw incha allah ñu ñu. Euh, euh, euh, dafa am lu Thierno Hamidou wax léegi. Mhm. dañu bàyyi imam mu mu tàggoo. de Thierno yow yeeweeguñ la yaag imam Mbaye. Mhm. yeeweeguñ leen imam Moussa rek la ñuy yeewu imam boo doon am ñaax booy ñaax askan wi. Mhm. ci côté ñu dellu si seen borom lan nga leen di wax ñu tàggoo ak yow. xanaa rek fi Thierno daaneele. waaw te sëñ Babacar woy ko. tarku tasabubi. kul min suu ima adabi bàyyee sabablu mhm. bi mu wax nañ sabablu mhm. nee na ku ko bàyyi nag ni fana mhm. nee na ci ñàkk teggin yàlla la bokk sabablu leen bu leen sukkandiku kon nag sa jeex na yaa ko mottali kon sabablu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya waaye it ma tegaati rek tub naa ilayka ilaahi naadimiina. macha allah bi ma jëfeef na ko te mu mooy bànneex yi ak ndigal yi. cës kay. <laughs> macha allah. jërëjëf ñu yendu jàmm a allah jërëjëf dama yër. naam mbay jërëjëf yaa imaam ñu yendu jàmm incha allahu taala. imaam. aywa. Thierno Hamidou naam. Cheikh mhm. Mansour. naam. dama yër benn téere. Mhm. benn égyptien moo ko liggéey. Mhm. maa ngi door a nag dégg la mu waxoon. Mhm. la waxoon. Mhm. téere bi biñ ko bindee ak léegi war na mat ñeenti téeméeri at. Mhm. égyptien la. daf ne su fekkoon maa moom charia bi di ko doxal. damay def pause. bu doon moo moom charia bi di ko doxal damay def pause.

boo ko boo boo ko ko kok boo na ko kokk rek mën a la boo na ko fas rek mën la toppi waaw fi saasi mhm. amul jéggale mhm. te nit ñi defarootuñ ah, te ñu ngi dem te loolu ba mu ko bindee léegi yàgg na ñeenti téeméer at xool naa bi ma gëstoo kii bi date bi est-ce que ba mu ko bindee ak su ak ak bi mhm. euh, dégg nga ñeenti téeméer at la euh, mu ne kon damay def pose ñu xoolaat jikko yi ñu xoolaat jikko yi ñu xoolaat jikko yi mu ne ndax yàlla borom bi yónni na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku dee dem aljanna ba mu def 10 ans kenn julliwul kenn óorul kenn ajul màkk. Mm-hmm. kenn génnewul asaka. te booba yëpp ñu ngi ko paqueté denc ci xadratu illahi yi. Mm-hmm. di xaar pour jikko yi jàpp ñu door ko wàcc. Mm-hmm. <laughs> léegi nag euh, ci la xëy jotu faatu te jigéen juy dugg aljanna xëy jotoo lay jiite radiallahu anha. ci la yaasir faatu. bayu am te bobu yooyu yëpp non kon ñu paquet tek non non ñu ko paquet tek hmm ci la ci la suma yettu ya yu am hmm de nga ak ñeneen ak sahabu yu bari ñi dañ leen reey ñi ñu febar de te ku de dem aljanna. hmm te julli amul wor amul aj makka amul genn asaka amul dara amul. hmm ñay ngay préparer jikko dañu jëfër jikko yi diko ko defar di defar yonent bi di ci xex di dugg di genn mm-hmm. ñi diko ciokas mu na a ba jikko yi ba mu xool yaakaar ne daal jikko yi war nañu attan mbir mi mu door na mu dal na ñomeet indi julli te wàccandeewul yëpp bëri déedéet ndax furidati salaatu mhm. qabla alhijrati bi sannatin wa sawmu fi saniyati ñi ngi farataal julli avant gàddaay gi benn at benn at la yonent bi julli màkk benn at gàddaay dem Medina deuxième année ba ñu wàcce koor mhm. topp ci ñu wàcc asaka mhm. ba dernier dundam lañ wàcc aj fekk jikko yi yemb ñu gën a am yaakaar xel yi gën a dal pour teggin yi gën a mat muy jàngale nag makaarimul axlaax discours bi mu njëkk a def moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam discours bi bi mu koy def Thierno Hamidou hmm. boobu amul trente personnes hmm. boobu ñu gën ci kaw suuf ànd ak moom hmm. matuñu trente ay vingt nangam lañ dafa ne dafa ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaax dañ man noome pour ñu wiri fi jikko yu xoolaat ko ndax borom bi looloo ko ci neex inna allah la yanturu ila suwarikum wala wajsamikum mu ngoog inna ma yansuru ila xuloobikum waaw la bañ de xaaj Mansour te lan yanal allah luhumha lan yanaal allaha luhumuha wala dima walakin yanaaluhu taqwa minkum sen sen tabaski yek sen xër yu duuf yek sen ca sarañ sal sen jagur jaagur yeeg seen sañse yi xooluma ko ak mhm. seen rukko ak seen sujjóot yi lu mu xool seen xol yi laay xool est-ce que ngeen di ko def tama tax mhm. loolu rek laa ci am mu bañ am gistal bañ am dara mu bañ am dara su ko defee nag kooku nag loolu mu waxoon nag ne su ma doon seet mbir mi damay def pause mhm. dafa mel ni kon est-ce que du foofu lañ ma dama defe ne kon yàlla dafa bëgg di pause ci aj <laughs> dafa xam ne sama néeg bi daal baal ma dem naa dema dema dem nag ba seen yar ñàkk teggin gi ëpp na ren bu fi kenn ñëw xoolaat leen seen bopp moo tax Thierno Hamidou ne corona bi il faut ñu xoolaat ci sunu bopp ne na wax ne ci départ waxam booba yéen ñëwagu leen sax booba émission bi émission bi num mu tuddati dëkkandoo jàmm ci gën déedéet taxaw askan wi waaw taxaw askan wi bi Thierno Hamidou di wax loolu booba mi ngi wax émission booba lim doon wax taxaw askan wi la dëgg la boobu mi ngi mi ngi ci dëkkandoo jamm ci gën mhm. mais bobu mom mi ngi doon wax waxu taxawu askan wi mhm. parce que loolu la wax fa tabarakallah tabarakallahu Thierno Amadou loolu la ubbi fa ñu delo ci wàllu xel sen sen auditeur yi auditeurs ma sha allah eh, Hadj Mansour waaw eh, auditeur yi tamit instant bi ni da nii moom ci ci waaw na ma neex loolu sha allah ñetti plateau lañ boole ci benn plateau wallaay ndeysaan ñetti plateau lañ boole ci benn plateau mhm. ndax ñi fi da yele kenn ku ci nekk rek plateau doyo nga émission ku nekk rek bibliothèque nga ma sha allah dañuy and ak auditeur yi ñu wote ci 88 628 10 95 88 628 10 95 boo leen fëggee rek incha allah jibi ba dina leen ubbi moo féete ci technique bi fekkook euh, Samba si naam xaj ñu ñu bàyyi ñoom ñu ko incha allah Samba ku ñëw rek ñu jël ko doo ko continuer tamit suñu suñu waxtaan mhm. imam am na ku nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum Oh, rëcc na mën nga fëggaat def 88 628 10 95 88 628 10 95 bisimilah. imaam suñu suñu déggee ni ni ni ni imaam wax léegi. Mhm. Euh, ci téere boo xam ne presque def na 400. 400 euh, ans. Mhm. Mhm. di ñeenti téeméeri at. waaleykum salaam wa rahmatulah Haj Mansour. macha allah. ah Haj maa liggéey. tey conférence lañu. gis nga de conférence nañ de macha allah. macha allah macha allah. bisimilah. mi ngi lay dégg. baan mi ngi lay jaajëf jaajëf Guèye Guèye Guèye Guèye. ñu ngi kontaan si yow bu baax a baax. baal ñu àq. baal lañu la yow tam nga baal ñu. yow ak mboolem auditeurs yëpp ñu ngi leen di baal àq. di ñaan yàlla yàlla na yàlla boole baal. jërëjëf. ah donc liggéey moom fan la nekk. léegi mi ngi Kébémer ndeysaan. ah Kébémer la nekk. waaw kon nag sa nga nuyul ñu ko soo ko jotee. waaw léeg-léeg mu woo ma jotal ma suñu yoon léegi. incha allah jërëjëf kon nag jox ko application bi pour mu mun a koo mun a déglu sa film. incha allah waaw ah, ma ko après naa wax ni mu. waaw dinaa la ko yónnee ci whatsapp bi. incha allah waaw waaw yónnee leen ma ko. jërëjëf mhm. Hadj Malick. kontaan nañu si yéen ñun ñoo gën a kontaan macha allah. ñu feddali waa suñu kóol si yéen ak suñuy cafeel. Ah, alhamdulilah di ziar suñu papa Abdoulaye Mbaye moomu. macha allah kooku sama caam ñi yaay la moom. ndeysaan ah, mooy Hadj Malick. Hadj Malick Guèye waaw Hadj Malick Guèye ndeysaan. waaw kay jërëjëf Hadj Malick maa ngi doon laaj sa yaay mu ne da ngeen toxu seen place boobu. ngeen di Cambérène loolu la ma wax démb bi ma wooye ndeysaan. Ah, ah. jërëjëf Hadj Malick mm-hmm. macha allah. jërëjëf macha allah ci moom moom kenn la ci biir ci biir daara ji. Mm-hmm. Ah, imam comme li ma a wax léegi. am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salam, lii kay du ma raw. du la raw barki rasulaay du la raw. Salam, baamu war nga. moom salaam sama papa bopp la. Seydou Wane. bismillah. ko ɗum eh? de fade mhm. no ema. a jarama. aɗa andi wonko kalɗa joni. eyyi. andi docteur wawi ko safrude. jogii ko miijo. Mhm. Mhm. kono noon yettinte miijo ngo ko allah. wallahi. kono kadi so docteur mayi hôpital. ina safra ñawɓe. so tawi mayi mayi morgo hoolaki hmm. hoore mum wala kono haali gonga an ah, haade nani haalduma jolfe min eh. nana mbimi nam haala eh, eh, wolof nena nam docteur day faj waaw way yalla moolay weral dëgg la waaye bu demee da di bu jaax nag. Hmm. mu nga xam ne docteur bi jaaxle na. naam mu tabax morgo. Hmm. wóoluwul boppam. wóoluwul boppam. kon foofu dañuy wax mbir mi am na ko ko moom yàllaa ko moom dañ ko koy delloo. kon nag nan delloo ci yàlla dëgg la. nan incha allah taala jërëjëf Diop Seydou Ban. Seydou Ban macha allah. wax na dëgg baal ma ak. baal nañ la baal nañ la baal mi Seydou Ban macha allah. aywa bokk auditeur yi ñoom Hadj Mansour dem ñoom euh, Papa Doudou sekk ñoom ñëpp macha allah ku fëgg rek incha allah ji bi dina la ubbi foofu ca technique men ñu fa cenn nuyu na la ñëpp nuyu nañ la macha allah kontaan nañ ci yow bu baax a baax jërëjëf aywa Hadj Mansour samay yaay yëpp ñu nekk foofu macha allah waaleykum salaam rahmatullah maa ngi leen di ziar ñaan na yàlla nangu delloo ziar sama doom jooju di ko gërëm alaaji Malick Gueye macha allah noo tudd ak fa woote soxna si nuyu sama mbokk moomu toog imaam ah. Abdoulaye Mbaye naam man la soxna Roqaye Gueye bu Farda. soxna Roqaye Gueye waaw soppay Moussa Traoré. macha allah dëgg la Gueye dëgg la soxna Roqaye. ñu ngi leen yaa imaam. ndeysaan ñu ngi lay ziar. ñu ngi kontaan ci jotaay bi di leen nuyu yéen ñi ci toog ñëpp. ndeysaan jërëjëf. imaam Baan ñu ngi lay. jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah. yàlla na yàlla yokk xéewal bi amiin yaa rabbal aalamiin yokk sutura bi amiin yaa rabbi ñaan yàlla génneel ñu fi musiba ak balaa amiin incha allahu taala yàlla nañu yàlla sàmmal njabootu kër yàlla may ñu fekkee ay déwén yu bëri. amiin amiin Guèye amiin yaa rabbi. lii yàlla ñu dund ba bokk ca wa sallam. jërëjëf kontaan te émission. jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna si Guèye kontaan nañu bu baax ah, Hadj Mansour yaa ngi doon wax. dañuy ànd ak seen émission taxawu askan wi. Mhm. tey ñi ngi am fi ay invité de marque. Mhm. imam dama wax ni léegi. am na ku nekk ci ligne bi Hadj Mansour. 88 628 10 95 mbokk salaamaaleykum. aleyna waaleykum salaam wa rahmatulah. imaam bisimilah eh, Pape Sarr Mansour. imaam imaam imaam Cheikh. waaw Saad na nga def. naam ñoo ngi ziar. baatawatuloo. sant yàlla sant nañu alhamdulilah. alhamdulilah ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax. imaam Cheikh Niang ca Géejawaay. Cheikh Ndiaye. imaam Cheikh Niang imaam eh, Cheikh Ndiaye ay man man damaa nam imaam Cheikh Niang moo tax dama koy tudd fu ma toll. imaam Cheikh Ndiaye ca Géejawaay imaam ca Géejawaay. imaam bisimilah. bisimilah imaam. El Hadj Mansour. naam. ñu ngi leen di nuyu di ñu ngi lay fay. di siyaare imaam yi. ñu ngi lay dégg. jiital imaam Alhaji Thierno Yoroban. di am kontante lool ci jataay bi ni ngeen toogee tey jii jataay bi dafa alaadaw me. est imaam yi nga dajale foofu. Hmm. macha allahu kaana. est dajale leen yombul. dëgg la. kon boo leen dajalee foofu. Hmm. ba tabaarakallahu xiiwal la. est-ce que ñoom bu ñu ma ñoom bu ñu ñaanee rek lépp baax. incha allahu taala amin yaa rabbi. bu ñu ñaanee. Hmm. lépp baax. alhamdulilah kon nañ ñaan. parce ñi ñi nga dajale foofu. naam. Oustaz Mansour. eh fa tabaarakallahu. alhamdulilah. jiital ci nuyoo bi nag euh, Oustaz Alhaji Imam Thierno Yoro Bane. naam jërëjëf Alhaji Imam Moussa. Hmm. di nuyu itam imam moom moomu. alhaji Abdoulaye Mbaye Abdoulaye mbay naam bu bu RDV moom mooy def foofu tafsirul Quran. dëgg la. ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax xam-xam la. ci waxtaan wi. macha allah. bi am na solo lool lool lool. jërëjëf Ndiaye. feebar bi ni ngeen ko waxee rek. Mhm. ñun ñëpp daal nañu tuuba delluwaat suñu borom subhaanahu wa mhm. bu ñu ko defee. naam ñaan ko li ñu bëgg rek mu defal ñu ko. incha allahu taala ndax kenn ku ne na jàpp ne rek mhm. yàlla moom la mere ba tax mu andi ko mhm. est-ce que mhm. benn doomu aadama bu ne oustaz Mansour na jàpp loolu kenn ku nekk jàpp ni ne jàpp ni yow la yàlla mere moo tax feebar bi ñëw fi est-ce que nga tuub nag delluwaat ci borom bi subhaanahu wa ñaan ko mu nungu comme ni ko borom lax dari wu andee nee naa wa surootu tawbatin naddaama alaa maa faata wa niyatu alaa yahuda ila sanbin fii maa baqee min umuri yi mm-hmm. wan yudroka almosiyata fi saata sun kaana yéen nekk na muta labbisan mm-hmm. nañu tuub delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala mm-hmm. yi nga xam ni defan nañu ko mu rëcc ñu jéggalu ko te bañ caa delluwaat waaw alxuraan andi ko tam yaa ayyuhaa llaziina aamanuu tuubu ilallaahi tawbatan nasuuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'aatikum wa yudxilakum jannaatin tajri min tahtiha al-anhaaru gëm yàlla ñaan tuub bu sell tuub goo xam ne la nga defoon doodoo ca dellu mukk ñaan yàlla mu jéggal la ko li des ci sa dund doodoo ko defaat ba pare nag nga ñaan ko bu ko defee bu ñu ko defee rek mm-hmm. li ñu bëgg yàlla defal ñu ko min incha allahu taala ñu ngi kontaan bu baax nag. ñett ñett ñetti imaam lañ amoon day mais ñeenteel nga leen. waaye imaam yi nga amoon kay macha allah. <laughs> macha allah ko kontaan nañu. ci taxaw macha allah jërëjëf ñu leen di siyaare bu baax a baax a baax. ñu lay delloo siyaare teddoo màgg wi. macha allah. di ñaan yàlla luñ ci jaamu yàlla ñu ko yàlla rabbi ci rëcc yàlla ñu ko yàlla jéggal. amiin incha allah profité wooti nag ñun ñëpp kenn ku ci nekk ñaan rek mbas mi jóge fi. incha allah taala weeru profité wala weeru weeru xiwal la weeru jiw la. Mhm. Mhm. Oustaz Mansour ñu profité woo ci. incha allah incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf macha allah jërëjëf Oustaz euh, Cheikh euh, Tidiane Ndiaye foofu ca Géejawaay. Mhm. di imam macha allah Haj Mansour. di imam suñ plateau miin na ko macha allah. Eh, ñu jaajëfal ko bu baax a baax wax ni ñiy déglu lépp 88 628 10 95 rek mooy bunt bi incha allah. waaw di nuyu ñëpp waaw waaw ay. mooy mooy bunt bi. dama doon wax léegi sànq dañ dañ dañ ñoo wax ñaar. dafa am biir. am jàngoro biti mhm. jàngoro biti bi moom la ñu médecin yi digal ñu jëfandikoo gel yeeg ak yi caaju mhm. mais dafa am jàngoro biir est-ce que du jàngoro biir yi moo ñu indil te moo ñu indil problème mu jàngoro biti bi mhm. est-ce que du ñun jullit ñi ñoo ko teg suñu bopp parce que su fekkonte ni tey yi nga xam ne tere woon nañ ko yëpp tey ñun atte woon nañu charia nga xam ni mesures yii yëpp day fekk ñun taxawoon nañ ba amoon nañ kenn ko nga xam ni yat la gàddu ni ah, ku ci jaarul yat bi tegu sa kaw est-ce que kon dool doon doo doon nekk solution bi gën a gaaw léegi imaam imaam tontu leen euh, euh, kooku Thierno Hamidou daf ci wax mm-hmm. wax bu yaatu bu rafet ah. sànq booba euh, tabarakallahu maanaam sa laaj bi loolu mooy tontam ah. moom daf ko tontu te boobu laa yu googu masha allah parce que daf ne uh-huh. kutubu samaawi yi téere yi nga xam ne asamaan la jóge borom bi yónni ay yónnent wàcc ay sharia maanaam wàcc shariatu islamiye ñu di ko donnante muy wàcc ay téere téere yi di ñëw di di wuutonte di wutonte ba Seydina Muhammad dikk dégg nga foofu daf borom bi dafa wax li mu bëgg wax lim mu bañ dafa am nag ñoo xam ne dañuy ñëw imposer seen programme bopp bàyyi programme yàlla bàyyi fële déet ñoom dañ ko sax laalutoon laaluñ programme laaluñ ko sax ba di ko mm-hmm. bàyyi day ñëw ak seen yëfi bopp mhm. ba noppi nag gis nga ban ñëw seen yëfi bopp suñu yemoon ci seen bopp mais day ñëw imposé borom borom ah. téere yi fekk leen ci seen biir ba noppi nag borom bi dooleel leen mhm. ci kattanam mhm. may leen teraanga dégg nga bu doy jay leen jay leen mooy mooy dumat isra sa na sududu mi nay su la yaalamoon ci biir loolu eh, ñoom nag ñu ñëw nag indi seen loolu nga xam ne amuñ benn programme wax na ko ci ñi di bàyyi ma ñii di góor di dem ci moromam góoram mm-hmm. jigéen ci mm-hmm. ila axir yi te loolu sama wiye bugg ko lamb ko laalu ko daf ko tere woon dafa bokk ci yi mu tere uh-huh. dégg nga pour ñu tegu ci yoon uh-huh. ñoom nag ñu ñëw nag andi andi nag seen programme boo xam ne jógewul fenn mm-hmm. mi ngi tegu ci seen bànneexu bakkan ñu ñëw nag imposé ko nit ñi loolu moo indi affaire bi loolu loolu nag moo indi li ngay wax nii ne lu teewoon ñu ñu ñu ñu ñu jot yet am nañ ko mais lii moo koy dal ci seen kaw léegi nu ñuy def nag ba génn ci loolu nag foofu nag la xalaat bi ne nu ñuy def ba génn ci lool def ba ba mucc ci ñooñu ba génn ci loolu te nag dana jafe mm-hmm. dina jafe dana jafe parce que jam xam nga jamono bu nekk liñ gën a soxla mooy ay moyen mm-hmm. mooy teraanga teraanga koom te ñoom am nañ teraanga ñoom borom bi sottal na leen ko ba mu doy parce que bugg ko borom bi bugg ko teraanga bi bugg ko du ko jëfandikoo. Mhm. sotti na ko ba mu doy te li tax mu wàcc ko li tax muy seen musiba ñoom li tax mu wàcc ko ñi ñi koy liggéey a tax. Mhm. Eh, qul man harrama zinata llahi allati axraja li ibadi wa mhm. tayyibati min ar-rizq oh, qul hiya lillazina amanu teraanga boo fi gis jullit yee ko moom ñoom na ñu ne ko tawit di ko teddee ba noppi sàcc ko di ko teddee ba noppi nag dal ci ko jujul imposé leen musiba mu bon moomu puus leen nag ba dox seen digganteeg li leen seen borom sant su boobaa nag fipp gi dana metti waaye il faut ñu fipp wala musibaam mhm. mooy li nga wax nii. il faut ñu fipp il faut ñu dellu ci liñ leen moomale. ñu fipp xoolaat jikko yi. dellu ci valeur leen lii ngeen ñu indil mu ngoog mooy borom valeur yi. Mhm. dafa am ñu am valeur am ñu amul valeur. Mhm. bu demee nag ba borom valeur yi nag ñu amul valeur nag par amuñu dara ba noppi ñoo bëgg imposé adduna bi. bëgg ñëw nag dégg nga siisir adduna bi yilif ko. foofu lañ toll fi mu nekk nii su ko def kenn ku ne nañ sa ñene sa valeur lem ko denc léegi nag noo koy mën a génne nag taxaw dellu siwaat ci taabal ji indi li nga am foofu nag fi la fi la fi la affaire bi nekk xeex boobu dina yomb imam yomb ay feem a koy def nag ay feem a koy def mhm. xam nga Seydi Hadj Malick radiallahu taala mhm. Fuuti moo ko samp mhm. nag kii mooy àggale sama liggéey te ñoom ñaar bokkuñ toog Seydi Hadj Malick euh, dafa xëy rek dégg rek euh, haut commissaire général dégg nga ñu yónnee benn ndaw mu jógee France bi mu jógee France ñëw wàcc ci bato bi ñu ne gouverneur ne euh, na Seydi Hadj malik am na gan ku jógee France France ko yónni nag mm-hmm. nee dafa am lu mu la bëgg a laaj te bëgg na ci tontu nga yób ñu yóbbul ko France bis sangam nak lañ la wo nga mëna a ak mom ndax de nga nga mëna joxe tontu yoy ñu yobul ko France ci daj may na baxna dafa wo Thierno Seydou nour tam woo Alaaji Pedor job wo seigne mat jang daire wo Alaaji rawan Ngom wo Alhaji Alhaji al aki eh, mam gour sani Ñang wo Alaaji Daawuda Dia wo mag ñi bañ daje ak lenn ci kilifa yi ci bir dekk bi mu woo leen ban daje ñu ànd ñëw teew si ci kanam gouverneur bi mu ñëw ab sàkkoos la indi saak saak mhm. daf koy document ba mu fees moom mhm. Sidaaj Malick mhm. te kenn waxagu ko lu France wax day det xamagul laaj yi ñu ko war a la non mais pare na ko macha allah bi ñu agsee gouverneur toog ndaw li toog Sidaaj Malick toog ñoom Thierno Seydou ñu mu àndal ñëpp ñu ngi toog gouverneur daal dina xaw ma nag lim indi ndax mu tarjam bi ne na wax ne xaw ma nag France lu ñu yónnee kii lañ ko yónni na wax liñ ko yónni yow miñ ko yebal nga wax yi itam dégg nga nga tontu laaj yim lay laaj mu yóbbul ko France xam nga lu tubaab lu tubaab bi wax tubaab bi daf ne daf na xaj malik France yow la fal nga nekk chef religieux ci biir colonie yi mu yilif boobu chef religieux benn règle man gis nga sama daan sax chef religieux ci ne te nag pep si léegi dafa bari bari ah, ah, ah. Eh, eh, bi mu waxee loolu mhm. na ko nag vie colonie yow lañ def chef religieux léegi nag France ne yii mu lay laaj def ci bëgg a tontu ne na bim bi mu bim bi mu colonie bi mu leen yilifee ba léegi mhm. yow lépp luñ la wax dangay wax waaw te doo ci def dara mhm. te ba noppi nag li nga bëgg a def lépp def nga ko te dara neexu ci France léegi nag loolu lañ bëgg tontu ma yóbbul France Seydi Hadji Malick xëcc ci saag bi naro seet benn document ci suuf jox gouverneur na ko liiral mu liir na ko waaw lii day mooy sa tool ba nga amoon ca ngàmb ci le ca gannaaw daggana boobu mi ngi gaaya dégg nga autorisation bi nga ci doon ñaan dégg nga pour war koo bay ba France defal la ci tampon lii de loolu la mu teg xëcc beneen waaw lii di mooy sawee ba nga doon def ci ndar ñaan ci France ndigal ba France lañ ko ne indi la autorisation bi mu teg mm-hmm. xëcc beneen lii di sawee ba ca Dakar xëcc beneen lii di mooy sa nangam ja xëcc beneen xëcc beneen xëcc beneen ba ba ca mujj uh-huh. mun a roseet benn mu ne ko ab ah, bii nag ak seegul bii réunion ba war a def ak mu xaddam yi la fii ci biir Dakar des na ñetti weer ci kanam France nag dóoral na la ci tampon may la ci ndigal. Mm-hmm. te egg seegul. egg des na trois mois. Mm-hmm. si daaj maay lii de la. France dama xool gis sama borom bi boole maag ñoom jël kilifteefu adduna bi jox leen jël kilifteefu yowmal qiyaam jox ma. bi ma booleeg yéen nag seen kilifteef bugguma cee yàq dara. Mm-hmm. ndax su ma ci laalee dara tooñ. te li ma sama borom sant ci jaam ñi loolu bugguma dara manqué ci. moo tax bala ma fi def dara ci kaw suuf danaa wax ak yéen ba ngeen jox ma ndigal ma dem def li ma sama borom sant mbaanoongoog mhm. ñu ne tekk dal na tekk mu ne sama tontongoog ci li France doon laaj ah. ñu ne kon mën nañ koo yóbbu bu ñu demee photocopie ko delloosi la say mu ne loolu laa bëgg mhm. ñu ñaarante waa ji jël bato ñibbi gis nga ban ban ko photocopie delloosi ko mhm. original yaa ngi fi su ko defee loolu loolu la xam nga fa jaahada fiiha bi siyaasati wan na daa la sëñ Alioune Guèye wax ba daal kull mu muqtadi ci xel ak xalaat ak rafetal ak nite ak silwise ak mën a dégg jamono mhm. fi la sukkandiku ba lim taxawal lépp mu taxawal ko xam nga dema ne te ba noppi France mënu ci tus mhm. def na ko tus la ci France mënul mhm. te neexu ko amul benn français benn tubaab bu bëgg l'islam dox amul. Mhm. ndax ñun loolu ñun xam nañ ko. bañ a xam mais nag ci biir loolu day indi ay bànneexam ak mooy li li Thierno Hamid wax sànq. Mhm. dañu ñëw indi du ñoom dañu amuñu programme. Mhm. amul benn valeur seen programme yëpp moo yàqal ñu. ba yëpp benn baaxu ci. te amul fu mu jëm. te képp ku téye ci sa loxo di dem ak yow. te jëmul ci yàlla amul fu mu jëm day dem ba ag mu taxaw nga naka doxal mun a fii la xawmu fu ma jëm te ñom amuñu fu ñu jëm amuñu programme amuñu dara seen xawaa nafs lu ñu am seen banexu bakkan te banexu bakkan lum la laaj tay bo liggé mu avancer lum la bo gisé borom bi freiné ko wane ne yilif leen ko mu tegu ci li li sharia bëgg mhm. ci ngay dund am jàmm la ca la nga ca war a bànneexoo danga ko bànneexoo te tam neex borom bi mhm. mais nag su ko defee su fekkee da nga jël bànneex bi jiital ko muy nafsu bi xel ma nekk ca gannaawam nafsu bi moom boo ko joxee tey dara boo lëgee mën a léem a gënal mhm. nga joxaat ko tey mën a léem a gënal xam nga fu mu jëm xam nga lu Cerno Hamidou wax léegi dafa ne dañuy dem ba yàgg ñu ne góor ak góor nañu sëy ñu dem ba yàgg ñu ne xeeb nañ ko mhm. ne jigéen ak jigéen nañ nañ ko ordre lañ mu ñu dem ba yàgg ñu ne xeeb nañ ko mhm. ñu ne kon léegi nit day def sax mhm. nit ki ak waajuram ak doomam ñu dem ba ne loolu nañ ko yoon ñu dem ba ne xeeb nañ ko ñu dem ba ne nit ak mala day gis mala bu góor na nit ku jigéen na naa ko def muy sama jëkkër mala bu jigéen nit ku góor na naa ko def muy sama jabar te loolu ñëw nañ ko validé te loolu fa lañ jëm bu ñu defal station fa lañ jëm parce que banex bi bakkan bi loko jox tay bu suba mu laaj leneen. ndax lolu imam suba mu laaj leneen lolu est-ce nit meun nañ cee mucc. li xew ci dëkk bi est-ce nit meun na cee mucc. wala jullit est-ce meun mën nañ cee mucc ci muccu rek dañ koy jël la Thierno Hamid. wax lay ci musa. jar jërëjëf Cheikh El abdullah Abdoulaye ma sha allah. jërëjëf madame la directrice. jërëjëf El Hadj Mansour. wante jërëjëf auditeur yi nga xam ne ñoom ñooy safoo seeni rajo Safina FM li imaam alxaaji Abdoulaye mbay wax boobu mooy dégg wante solution bi mooy wa fi nafs wa cheytaana wa asihima mooy bakkan bi bakkan bi koo mën a doon ci kaw suuf na fexe ba yar bakkanam ku mu mën doon ci kaw suuf na fexe ba moytu cheytaan bakkan bi ak cheytaan bi lu ñu lay won rek mooy àdduna bu jag àdduna su jagee nag te wattandiku sharia bi xool alaxira bu jag su boobaa njumte mooy ñëw ndax mawlaana cheikh alhaji mu fuuti radiallahu taala an wax mu wax ne si xutbam bu mag bi inna dunya daarun li man laa daara la wala haa yajmau man laa aqla la innama hiya daaru fanaain wa xurur wa masaibu tunsi kulla surur mooy àdduna kër la su fekkente ne waajuloo kër yowmal qiyaama te àdduna nu mu neex neex bés dina ñëw mu jeex comme ni nga waxee léegi ñoom dem na dem nañu ba seen programme tey wala seen waxi ni tey li ñuy dégg ci seen kilifa yi mooy àdduna bi dafa fees ay doomu aadama nañu leen wàññi nañu fexe nañu leen di wàññee pour àdduna bee nokki dund bi mën a jekk ne ku ne nga dund dund bu neex dund bu rafet loolu yomb na ñoom ñi ko wax nañu gisal seen bopp ñu xaru kese waaw ñu indi seen i njaboot ñu rëy leen benn yoon ñoom ñëpp ñu dee kenn ku nekk njëkk a wàññi sa njaboot ba pare nga wàññi nga bañ sa bopp ak sa njaboot mm-hmm. nga ba a xalaat ni ngay wàññi ñi keneen mm-hmm. am na ay président ancien président ñu ko wax mm-hmm. bu tudd ay dëkk fii ak ak sangam nii la ñu mel ni la ñu mel léegi nag su fekkente ne loolu valable na la dëgg la ci ñoom bëgg àdduna bi oyof nañu fexe ñoom ñépp ñu fexe kenn ku ne mu ne man ak sama njaboot fukki nit lañu. nañ ko tàmbale seen bopp. nañu tàmbale. Mhm. keneen kii naka noonu mhm. keneen kii naka noonu ba ñuy war a xalaat ne mhm. suñu defee vaccin vaccin yi nangam nangam. wante wa yamkuruuna wa yamkurullahu wallahu xayrul maakirin. ñu ngi fexe seeni pexe boot bi mu ngi taxaw fale di xool seeni pexe lu mu ci àndul mhm. du jag du jub wante lu am rek yàlla subhaanahu wa taala jël qudrat li nga wax sànq mhm. mooy xalaat nanu seeni xalaat mhm. pexe nanu seeni pexe wante Cheikh Sidi Hadj Malick radiyallaahu taala indi na solution dëgg la indi na solution waaw ndax ñoom bëggunu li muy nar a def Mm-hmm. wante moom def ko jaarale ci yoon. Ah, waaw def lu ma bëgg a def. Mm-hmm. mais taxul diggantam ak ñoom mu mu rafet. dëgg la. Mm-hmm. te fi ñu doon bañ. foofu la samp li ñu li ñuy bañ ñoom. moom mu def lu mu bëgg. loolu mooy udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawidati l xasana wa jaadil billati ahsan su ma doonoon président de la république. négociation bu mu mënta doon. Mm. dinaa xam ni ma ci wax waaw mm-hmm. su ma ci waxul waaw mm-hmm. danaa def neutre mm-hmm. ànd ak yar ak tëggin su ma demee ma seet li nga xam ne moom la sama askan bëgg moom la sama askan mën ma ànd ak ak ñoom ndax dama leen waxoon ne bi may laaj réew mi danaa nekk seeni soldaar dinaa nekk seen serviteur mooy seeni mbindaan mhm. Mhm. lu ngeen bëgg ma defal leen ko mhm. fal leen ma ci kaw loolu ñu fal ko ñu fal ko su ëllëgee damay nekk citoyen comme ñëpp parce que nguur day jeex nguur yàlla rek moo fi sax soo amee cinq cinq ans wala nga am dix ans wala nga am lu ko ëpp yàllaa xam soo paree da ngay delloo nekk euh, civil. Mhm. nga nekkaat ci askan wi. Mhm. kon nag fi nga janoo ak ñoom. Mhm. di leen laaj seeni baat. delloo ba januwaat ak ñoom. da war a leen xool bët ak bët nga bañ a rus. te nga fexe fi nga doon jaar mu tilim. soo jaaree te foofu mu set. fu mu daan jaar fi nga doon jaar. mu am béykoor soo jaaraatee foofu mu naat ñu privilégier éducation mhm. ñu privilégier santé mhm. ñu privilégier agriculture mhm. ñu privilégier communication c'est-à-dire euh, yoon yi xam-xam bu amee wér gu am ni am wér gu yaram am dund am réew moomu jeexal na mais su fekkente ne yàlla dogal na dem bu école publique moo gënoon am solo képp ku dem école privée dañuy wax ne ma redete alay mhm. nilaar la nilaar mhm. tey tey jii ku demul ku dem école publique mooy dem la ñuy wax ne nilaar la mhm. su boobaa nañu xoolaat suñu bopp yaa yi ñoom tamit nañu nekk patriote nu bañ a jiital dërëm def naa ci benn responsable responsabilité partagée. Mhm. def na ci sketch. xam nga sketch bi. Mhm. Mhm. mais augmentation augmentation. comme ni nga sank suñu la Nous dërëm. ñu jaar ñaari dërëm. suñu ñaari ñaari comme ni mag ñi seen vers les années bi nga la école bi. commencé euh, commencé. Mm-hmm. soo xoolee magu démb yi. Mm-hmm. seeni bind ñoom ñëpp ay calligraphe lañu. incha allah mm-hmm. wante tey tey da ngay gis professeur su bindee sax doo mën a xam lu mu bind. seeni français ku nekk ci primaire su waxee rek da nga foog ne lycée wala université la nekk. tey tey da ngay gis ku nekk université waxul mënul def benn phrase. naka la ñuy saafaree ba ñu delloo valeeru valeeru classe ci biiru classe. mooy éducation bi jàkk. su ma doonoon président moom laay njëkkee def. Mhm. dëgg la de ñaareel bi mooy santé. tey tey ji hôpital yu mag yi ku dem foofu rek jaaxle moo tax. Mhm. ñëpp ñu ngi clinique clinique. médecin yi daanaka ku nekk fi nekk fale ku nekk fale nekk fi ana bëgg réewam na taxawu askanam. foofu la ñu xaawalaat ko bu baax a baax. ñu organisé ko du kenn ku ne mooy ubbi clinique. Mm-hmm. du kenn ku ne mooy ubbi cabinet. Mm-hmm. moo bañ a comme cabinet téléphonique bu njëkk bi mu am norme su boobaa hôpital yu mag yi danañu am mm-hmm. faj bu rafet clinique yi faj bu rafet. ci wàllu agriculture ñu seet. mbayu ngoos-ngoos mm-hmm. baaxoon na démb mm-hmm. wante tey tey ji am na yeneen mbay moo gën a baax mm-hmm. gox bu ne am na lu muy nangu fu nangu ceeb ñu dooleel foofu ceeb gi ñu imposer nit ñi ak commerçant yi nañu dem jëndi suñu ceeb yi indi ko ñu lekk nañu dem jënd suñu dugub yi indi ñu ko ñu lekk nañu dem jënd suñu suukar yi indi ko ñu lekk su fekkente ne côté bi nga xam ne nangu na suukar nangu ceeb côté bi nga xam ne nangu na yarub jur ratt dëmb sa ñaari loxo nii baax na wante ñu gën a dooleel càmm gi càmm gi ndekk càmm moderne ñu am yàpp bu sell am meew bu sell am jur bu sell suñuy tabax kee duñu dem jéggaani fenn ñu xool ci beneen yeneen réew yi tey tey jii àll bi mu naqat dëkkuwaay yi ak yu deme noonu mhm. kenn ku ne ci borom jur yi na nga bay ñax ci sa biiru tool mhm. nga yaraale foofu say nag ci sa biiru tool mhm. nga yar foofu say jur ci sa biiru tool ñeneen ñi bugg a ganaar yar seeni ganaar ci seeni biiru euh, agri kii su boobaa lu bari ci wàllu yàpp bi ak meew bi déglu donc ci wallu napp gi démb da ngay sànni sa os mhm. nga jàpp jën bu mag tey tey ji soo defee mbaal sax doo jàpp jën cëm pisciculture yi ñu valoriser ko mhm. ñu yar jën yar ju rafet soo boobaa kenn du dem fenn ñoo soo statut bi fi nga xam ne ne coton bi mooy gën a baax foofu ñu defar foofu coton ñu jox leen doole jox leen jumtukaay jox leen lépp su boobaa ñu am usines yi liggéey comme nu mel na Sotiba nu mu meloon ñu dëkkaliwaat loolu ñu defaraat suñu mbir suñu bopp su booba kenn du dem jéggaani feneen leneen barça wala barsax manque d'emploi rek la mais su amee fii kenn ku ne dafa bëgg tedd fi nga dëkk ndax waa watani min al iman ku nekk France cent ans am na yenn guddi doo xalaat lu lul fi ngay doon dem ak dëkk ci say dëkk say xarit yi nga doon ànd ak gudd ak bëccëg sa xel yëpp day am na ñi xam ne suñu xalaatee xalaat googu du ñu nelaw guddi mais lu tax ñu dem dem wuti mais su fekkee ni nga doon dem wuti mu ngi sa bër kër sa biir dëkk mm-hmm. fooy jëmati wax dëgg yàlla soo boobaa réorganisation moo war am suñu importation ak exportation li ngay war a importer li ngay war a exporter yëpp mun na nekk ci sa biir dëkk soo boobaa mu gën rafet macha allah su yàlla dogalee pétrole bi ñëw gasoil bi ñëw lépp li nga xam ne réew ko ñu séddale ko li état bii war a fonctionner ñu am ko ñu fonctionner ko mhm. mais li war a delloo ci askan wi delloo ci askan wi kenn ku ne am ci ah, jàmm ne ñooy mhm. politiciens yi ñu bañ a def politique politicien mhm. politique de critique amul solo wax président dafa rafet président dafa ñaaw président non da nga war a teg sa programme su ma amee réew mi sama xalaat lii la ci njàng mi sama xalaat lii la ci santé bi sama xalaat lii la ci agriculture bi sama xalaat la ci lii la ci dogal doxal doxal askan wi sama xalaat lii la ci sama ci sama wante ak constitution keneen def noonu keneen def loolu ngeen talal seen loxo wax seeni programme moo gën bëgg a def campagne sànni xeer toj ay oto ak ay wax wax ju ñaaw loolu amul fu la amul fay dëgg ndax soo tojee li nga war a defar soo faloo li ngay njëkk def mooy tardement parce que da defar li nga tojoon alors ko am jéego doo am jéego kon nag dañoo war a nekk politicien civilisé mhm. président de la république moom tamit mu yaatal yaatal dënnam yaatal loxom bien vrai que alhamdulilah rabbil alamin président bi ñu yor mhm. am na yar am na teggin noppi na lu ñu ko wax du tontu lu ñu ko def du tontu loolu mooy kilifa wante na gën a tàllal loxoom mu xam ne yàllaa ko fal tànk yàlla dindiwul pal gi kan mooy ci adduna bi yëpp su feetee côté moom mu feete côté yàlla mu ngi ànd ak moom amul sikk amul sikk qul illahuma malikal mulki tuutil mulka man tacha wa tanziul mulka mi man tacha keneen kii tamit su yàlla waxul ne na nga yéeg soo yuuxoo doo yéeg soo jooyee doo yéeg. dëgg kon nag na nga sabablu nga nekk gannaaw ko rafetal ko wallaahi. te ñun ñëpp bokk ndi bokk baay. Mhm. rafetal gi rek lañ bëgg. Mhm. ci wàllu kilifa diine yi tamit. ñu xam ne njabootu gi seeni njaboot lañu. Mhm. kenn ku ne am na loo donn te li nga donn war nga koo doon. li nga doon mooy lan palaasu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ne ci njaboot gi sa njaboot lan te yow du yow yaa yaa yaa sakku nga feeñ ci kër gi mm-hmm. jëfu yàlla tànd amu ci mm-hmm. man damay war a sant taal mm-hmm. du sax tax nga sant taal so yàlla waxul ne ni ci azal ci taal ngay bokk dama war a sant mbakke déedéet te yàlla eh, nammul nga feeñ ci mbakke su yalla fe su nga nama nama sant si walla keneen ak leen léegi nag su yàlla dogalee nga feeñ ci ñooñu da nga war a delloo yàlla njukkal ndax am na loolu yàlla defal subhaanahu wa taala yàlla defal nag mooy nga taxaw taxawaayu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii qawmihi mhm. ndax cheikh alxaaja mu futi radiallahu taala anhu mu ngi wax ne a cheikhu fii qawmihi kan nabiyu fii ka fii ak a cheikhu fii qawmihi kan nabiyu fi ummati ummati wallaahi loolu la wax de sëriñ ci nja biiru njabootam dafa mel nu yonente ci biiru xeetam kon nag soo toogee ferenkulaay ci déru yonente bi salaa sallam da nga war a am jikku rasulullah salaa sallam mhm. soo amee jikku rasulullah salaa sallam ñi lay entouré ñi lay encadré mooy say taalib yi na nga ne dañu ne war a war a nekk comme taalibi rasulullah salaa sallam taalibi rasulullah salaa sallam mooy ñan Seydina Abou Bakar mhm. ci jikku ah. ci xel mhm. ci xam-xam ci yar ci teggin ci mbaadu lépp la mais yonent bi sallallahu alayhi moo ko sol Seydina Omar ci déggu gi ci ñeme gi ci njàmbaare gi kan moo ko sol rasulullah sallallahu alayhi wasallam Seydina Ousmane ci liggéey bi ci commerce bi ci wutu alal bi ci mu lew ci kerse bi ci ci ci kerse bi ci njàng mi ci njàngal mi boo dajale alquranul karim kan ko sol rasulullah sallallahu alayhi wasallam Seydina Ali si xam-xam bi si xikma bi si njàmbaare gi ci lépp waxul ne man mbokk yontu bi salaa salaam man taalib yontu bi salaa salaam saxaaba yëpp mel noonu kon nag yow sëriñ bi na nga war yar say taalibe say taalibe amul benn taalibe bu war a nekk sa taalibe askene ci yow mu tilim mhm. ci biti mu tilim si biir loo mun nag nga def ko mhm. su booba doo am taalibe sàcc do am talib mandikat do am talib agresseur do am talib bandi parce que da nga leen war yar comme nu yonent bi salaa sallam yaroon ak ay njabotam nga yar si say talib abou Bakr nga yar say talib ay omar nga yar say talib moy ay ousman nga yar say talib ak Ali nga yar talib Hamza ak ñeneen ak ñeneen nga yar say talib moy sayyidna Khadija su jël nga yar say talib comme sayyidna sayyidna aisha sayyidna Hafsa sayyidatna sayyidatna sayyidatna taalibe jigéen yi nga yar leen ci jikko ju rafet sa taali taalibe góor yi nga yar leen ci jikko ju rafet mhm. ku ne nga nga nga saytu ko so boobaa léppuy jeg léppuy baax mais su état bi dafee faay ci li nga xam ne moo taxoon mu jóg mhm. faay day am rek mhm. kilifa diine ñoom tamit su defee faay ci li nga xam ne moom la ñu donn faay day am rek su faay bari nag anarchie mooy ñëw mhm. fa anarchie ñëw rek pëcc ko moo ñëw soo mhm. pëcc koo ñëwee dem dem dem ba àgg yàlla indi corona corona nag delloo leen ci yoon kon nag fii léegi war nañu profité ci biir corona soo jeexee kenn ku ne taxaw seetlu ci wàllu diine bi ak ci wàllu bi pour ñu defaat départ bu baax macha allah ci allah xam <laughs> ban haj Mansour kenn oh. def na def na conférence ah, conférence dañ leen tere ci koor waaye kenn conférence fii moom wax dëgg yàlla tey jii dama wax ni li fi génn ci xam-xam. Hmm. duñ ko bàyyi dañ koy noté. Hmm. dañ dañ koy téye parce que euh, lim ñu résumé hmm. ci dix minute kenn ku ci nekk amul pacc bu nekk ci réew mi te amoo ci sa wàll. la te kenn ku ci nekk soo tegoo ci message bi mu jàllale. nga xam ne mooy li nga war a def yow. sëriñ bi toog toogaayu yonent bi. ndax moom la uutu. sallallahu alayhi wa Eh, kilifa réew mi xam ne ñi mu jiite gënu leen dañ leen ko dénk mhm. muy delloo leen yërmande waaye ñiy topp ci ginnaaw tamit di politiciens yi mhm. bañ a def comme ni mu wax parce que te moo moo am mhm. da ngay sànni xeer rek pour sànni xeer yàq rek da wax rek pour da ngay eh, da ngay dem ba sax doo dara du baax ci yow am na si ñoo xam ne mosoo dégg ñu ne lee baax na ci réew mi bon na rek bon na rek te loolu nag du du dafay jaadu yenn saa yi ñoom ñu recadré waat ñu. Euh, da ngay faral di wax yow sa ci suñuy ubbi émission bi nga ni est-ce que est-ce que corona coronavirus bi. ñëwul nekk lu bon ba pare waaye am lu muy. jëj defaat lu baax lu baax ci réew mi. Mm-hmm. ah kay am na. parce que soo xoolee ci pàcc bu nekk ña fa nekk ñu ngi góor di xool nan lañ nan nan nan la ñuy te pourtant ba ba ci ba ci santé mhm. ñi ngi ñi ngi gis suñu élèves yi nekk Thiès. Mhm. ñi ngi góor di ñu dimbali defal ñu ay appareil mhm. ay appareil oxygène te pourtant suñ ko mësaan euh, soxla ci réew mi dañuy dem dañuy xool fan lañ koy commandé ci bitim réew te ñu am ay étudiants yoo xam ne sax ñu di ko créer tey bi tey bi ñu tiitee ni est-ce que dina ci réew mi gunge na leen jox leen ay moyens pour ñu réaliser ko <laughs> donc pourquoi expertise boobu noonu démb balaa tey pourquoi état bi gisee wu ne. bi c'est na defar defar defar domaine yu wax na ko ci mbay mi. Mhm. tey euh, wax naa ko ci émission ba la ñu génn ma ni suñu góorgóorlu woon ba li ñun li ñu am ci koom. Mhm. di ko jëndee li ñu bàyyee ci réew mi. Mhm. li ñu defaree ci réew mi kon xaalis bi du génn réew mi day circuler ci biir réew mi rek. te baykat bi dina ko dimbali muy gën a mën a produire. ndaxte lu mu produire du taxaw. te ñun ñoo koy consommé waat suñu bopp te li ñuy jéggaani bitim réew gënul li ñu am ci réew mi imam dafa mel ni résumé nañu suñu suñu suñu plateau tey macha allah macha allah Thierno Hamidou Sène bàyyiwul benn rox fenn fu nekk rek la fa yàlla dégg nga génn na ko macha allah ci anam ba gën a rafete léegi kay xool yi mu tëral ak yi mu wax ñu fexe nan leen koy mën jëriñoo application loolu rek loolu rek mooy affaire bi fi mu ne nii xam naa ne seen émission bii tey macha allah. macha allah mooy nu mu tudd. taxawu askan wi askan wi tey moom taxawu ngeen askan wi. <laughs> tey moom taxawu askan wi macha allah. Ah, tey yow na yow tey moom. Mm-hmm. Eh, eh, tur bi wuyu na boromam. alhamdulilah macha allah. Mm-hmm. léegi nag askan wi nag moo des. Mm-hmm. taxawu nañ leen nag dëgg-dëgg. indi nañ leen seen dépense. léegi dugg ci wax yi rek mooy des nag. waaw góor gi nag su xasee taxaw wala mun nag léegi nag bu neex bu neexul nag ñu laaj leen ko mm-hmm. parce que ni moom dëgg dëgg wax dëgg yàlla eh, indi nañ leen dépense bi mm-hmm. eh, dégg nga eh, soxna ñim dem na duggi ñëw mm-hmm. tabaaraka maanaam Thierno Hamidou indi na dépense bi soxna ñim duggi na ñëw teg Imam Mbaye def nañ ci léegi nag acca nañ daal di dugg ci waañ wi nag askan wi nag macha ngeen génn loo xam ne nag tabaarakallahu looy solo lool li ñuy tàggoo rek mooy ñu bàyyi xel ne balaa bi mbas mi li ko fi indi borom bi la euh, te li ko fi jële moom la te lim bëgg lim lim bëgg wax na ko mooy lan mooy ñu faju te ñaan ñaan nag il faut mu ànd ak sarax il faut mu ànd ak sarax moo ci gën gaaw mhm. man nga ñaan sans sarax waaye soo bëggee mu gaaw nga ànd ak sarax ndax kiy ñaan day bëgg ki ngay ñaan kontaan mhm. te saraxee tax mu kontaan mhm. muy borom bi subhanahu wa taala mhm. su ko defee kon ñuy ñaan génne sarax ba noppi moytu faju fegu fa tabarakallah faju fegu waaw faju faju ñaan génne sarax président nag dama wax ne li mu génne nañ ko tuddee sarax dañ ko tuddee sarax waaw am na benn imam bu ñu wax fii ne nee na li ñu génnee bu ko yéenee woon sarax rek mun na faj mbas mi man man wax naa ko ba tey est ce que imam boobu du man sax sudu yow man day fo lu mu wax loolu lay wax macha allah macha allah euh, waaw Thierno day tàggoo rek ñu nodd ñu jaaraale foofu noonu insha allah may la mu jox euh, nit ñi Thierno loo looy tàggoo ma tàggoo rek mooy yàlla na yàlla may dégg yàlla na yàlla may topp te yàlla na yàlla defal jàmm génn nañ ci fukki fan wéeru koor bi nga xam ne moom mooy yër mooy yërmaande ah. mhm. ñu ngi dugg ci fukki fan weeru fukki fanu euh, jëggal jëggal mm-hmm. te sax la ñu tàmbali wala démb kon nag yàlla yàlla jàggal jëggal adduna bi yëpp incha allahu teggal ñu jàngoro bi ak bi indi lu jàmm ngam barke euh, duwaaw suñu maam bi Mawlana Cheikh Alhaji Mame Fouti Allahu taala an bi mu waxoon ne allahuma jaal biladana min xayri albilad wajaalha aminatan mutmainatan ila yawmi tanaad subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil ngeen jëf mm. lu ma juum nag mm. na ngeen ma jéggal nañu ma jëllale auditeurs yi auditeurs yi yëpp incha <laughs> allah <laughs> eh, jërë macha allah bég ci ci ci émission bi war rawatina suñu invité de marque yi ñu am tey mm-hmm. eh, am na foo xam ne dugguñu fa daal ñu fa ñëwaat ak moom parce que bi ñuy commencé bi ñuy dugg si studio bi mm-hmm. ñu ngi ko dégg moom ñoom imam musa mm-hmm. muy def benn benn benn benn feuille de route ci wàllu sécurité ci réew mi ci wàllu organisation bu am am solo boo xam ni euh, day commencé ci suuf mhm. jëm ci kaw nga xam ni soo xoolee couvre-feu bi euh, la joxe comme exemple mhm. jàngat gi mu ci def. Mhm. daañ si ñëwaat ak moom. jeudi incha allah dañ daf ñu koy may téléphone. daf ñu koy may téléphone. waaw parce que njàngat la boo nga xam ne wax nañ ko ci émission yi yër ba la ñu génn. Mhm. bi ñu invité eh, délégué de quartier ba la nekk yëmbal. Mhm. ci organisation bi mu defoon. dafa mel ni eh, Thierno daf ci daf ci def daf ci def programme. programme boobu nag maa ngi koy ñaan na ko bind. na ko bind mu yëg ci kaw. parce que ñom il faut ñi bind. Mhm. di envoyer ci kaw comme ni imam ne man conseil la. Mhm. moom ci la bok mhm. na ñi bind di envoyer ci kaw. parce que xam-xam la ñor xel mu sell te leer te dañ koy tek nak ci teguwaay. dëgg la parce que kuy nitulo kuy niitoo woo alquran. loo teg rek day leer. kon ñom ñi ngi ñaan ñi dañuy bind. diko envoyer ci kaw. jaajëfal ñi nga xamni ñi nga àndoon ak ñun ñep sen émission. taxawu askan wi. tey nag ku gis ku gis émission bi da ngay xam ne du benn émission. Mhm. émission la boo nga xam ne spécial la. Mhm. ñu ñaanal leen yàlla yàlla gën a dëgëral leen. ba fi ngeen bëgg a yóbbu mission bi yàlla defal leen su seen njort. jox rendez vous ñëpp incha allah jeudi. incha allah ci même heure même fréquence. fii ci lanay bi. incha allah jeudi dañuy ñëw parce que ñi ngi gis suñu suñu réew ci jaaykat yi ci suñu économie réew la ñuy ñëw. parce que ñu ngi tëj marché yi. waaw technique deux poids deux mesures il faut ñu waxtaan. waaw te am na bàyyee marché yi ñu ne dañ leen tëj. te am ñu bàyyi ñoom Auchan kenn du leen tëj. supermarché yi toog te ñoo loolu tam daañu ci waxtaan loolu dañ koy indi xool coronavirus bi ak économie réew mi fu mu toll incha allah taala jërëjëf Haj Mansour mbokk yi auditeurs yi déglu Safina FM ci 98 point 2 dañuy tàggu yéen fii incha allah taala ñu joxante dig daje euh, suba incha allah ñu am plateau am plat euh, dinañu am comme invité nag euh, ci wàllu suñu mbokku Haalpulaar yi Kumba Sow mu nekk rajo fële rajo Fulbe incha allah moom ak invité surprise bi damay bañ wax ko balaa cat di ma dugg ba suba incha foofee eh, suba gi eh, taaniraaɓe Maymuna Kumba ñu ngi doon ànd ak ñun ci groupe bi ci groupe whatsapp bi macha allah ñu ngi doon suivre émission ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen wax ëllëg li xaar ba suba ak jàmm incha allahu